caxat caxate saax saaxe di randal di tuumaal di taxal di teg di toroxal tegale tànk toog puuj paaj pajal foroxal Aliou Sall ak Mansour Faye wuraj waraj ba Mansour tay atte bor fay buur xamul saay na te Macky saay saay la sàcc la ñu tippoo gasa maak timboo ku ne da ko bandum set ba jeex na jibtoo parti baay baay la gas saramara jaam la salte jikkoo doomeram ni dimboori yootu troisième mandat réew mu yëngoo tii duñ ko réglé ci pet ba dëkk bi tàkk ci pet ñi siw ci kaani ci mboow sëñ si génn di wax duñ may carax bu ñu waree wax duñu wax mu jii di tibb di warax këpp yàlla waan wi xalak waa réew mi rang yi leen di sarax tàllal loxo di ñaan fondation marem ci barem chômage bu extrême asalaamaaleykum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ñi ngi nuyu ñep ku ci nek sa tour ak sa sante di len jaar di len magal di len ndamoo di len titro di len bëgge bu wër contane ci yeen ñu war rek di waxtaan ak yeen ci Sénégal Est Afrique nu Sénégalais wara taxawé ci moment bi nga xamni moment bu propice la moment de changement la. moment bo xam la euh, moment bu yalla may sénégalais moment bu constitution bi may sénégalais pour ñu exprimer sen voix pour ñu exprimer wu ci li nga xam ni euh, dund nañ ko ay at euh, ñu bu ko changer wala ñu bu ko continuer donc comme nous venons de ko waxee rek je pense que maturité bu ñuy wax population bi boo ko xam da ngay baye ba ay élection ci ngay xamé maturité réew réew bu ñu wax ni réew bu yeewu la wala ay réew dof la wala réew yeewuñu wala réew yo xamni euh am nañ éducation yeewu nañ euh, am nañ ouverture d'esprit am nañ am nañ state of mind am nañ mindset donc lool yëpp ñu koy xamé ci ay élection euh, bala ñoo tollu fi nak élection yi ni nga xamné moy élection présidentielle yi lu ne daj nañ ko lu ne dund nañ ko yaay beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de, de crimes non élucidés, il y a eu beaucoup de blessés, euh, il y a eu des portes disparues, etc. etc. Donc, le système, nous avons en 1960, nous avons un système le est Le système bi le ñuy dund euh, dafay mel ni luy répété mais il y euh, bi tamit gars yi yàgg nañ ci te aussi ay dégâts dégâts matériels dégâts financiers dégâts humains etc., etc. donc si nous, avons lay de lay des comme au Canada parce que dès nous avons occupation ñi etc etc. ñi ngi fay impôt ñi ngi Donc, problème en fait les besoins primitifs amuñu ko c'est-à-dire amuñu problème mu lekk amuñu problème mu naan amuñu problème mu faju amuñu problème mu dox seen soxla amuñu problème mu ay tali amuñu problème mu ndox mu baax amuñu problème mu courant etc. etc. et cetera donc fii ku fi live loo fi liveal lan ngay wax à quelques problèmes moom mun a am vite fait après on le résout à jàll ci leneen mais ñoom fii liveur mënu fi dund liveur canadien mënul dund du yag. Live français peut-être du américain mais Sénégal liveur il def 50 ans de live parce que 50 ans yoo dara changé wul 50 ans yoo même problème 50 ans yoo chercher le naturel il revient au galop le même système donc nous avons war nañ que a toll foo xam yi commencer di disparaître petit à petit di dem di ful bi dem am liggéey wala whatever parce que Sénégal da ngay dem ba live sax liggéey lay doon Sénégal da de ay live yoo xam ni seen liggéey lañ ko def dañuy yow suba bu guddi di live parce que gis nañ ni live bi sax doon euh, ay weccet am lu ñuy lekk ak yooyu donc sax moom loolu lépp day wane nii euh, dëkk bi moo doxut nu mu war a doxee dëkk bi moo moo moo moo moo jotul souveraineté léegi nag ñun ñëpp gis nañ euh, sénégalais yëpp tey joindre nañ ci campagne Diomaye Fay et que moom moi, le candidat du changement qu'on le veuille ou non moom moi, le candidat du changement moom mooy ki nga ramené euh, Ousmane Sonko Moko ko Moko moo Euh, joxoñ ba Mashaallah def ni macha euh, bi tamit aussi top. comme on dit on n'arrête pas la mer avec ses bras sénégalais bu fekkee ni li ñuy wax di ko woote ñu ngi koy toogee di ko dund donc kenn du naatable ne tey jii bu demee ay élection présidentielle Diomaye du ko jël da koy jël bu fekkee ni sénégalais duñ fennuñu seen bopp bu fekkee ni sénégalais li ñuy wax ñu ngi koy jëfee bu jour vote bi dinañ jóg ñoom ñëpp dem bu ñu xëddee ba pare dem ci bureau de vote yi jigéen itam teel a jóg parce que après dañuy waajal ndogu donc jigéen normalement jigéenu Sénégal yépp war nañ voter avant 18 h heures parce que jigéenu Sénégal yépp après dañuy dem préparer ji ndogu ñoy préparer ndogu seen borom kër yi ñoy préparer ndogu ci biir kër yi donc jigéen yi war nañ avant 17h heures paré ben benn jigéen nekkul Sénégal bo xam dafa wara voter té voté wul donc loolu lépp lu ñuy la lo xamni ni dinañ ci communiquer parce que ñun aussi dañu dugg ci campagne bi campagne électorale la ñu nit dañoo dugg ci campagne électorale di taxawu suñu leader du taxawu suñu candidat té ñëpp xam nañ suñu candidat on l'a on dévoilé devant tout le monde c'est le candidat de l'antisystème c'est Ousmane Sonko c'est est Fay c'est c'est Fay c'est Ousmane Sonko C'est le candidat de l'antisystème de la coalition de Diomaye Faye moi, moy suñu candidat Nous bokk ay de bokk ay de bokk etc., etc., etc. Nous beaucoup. Il a un très bon programme. Et ce programme-là a été bien travaillé par des gens, Parce qu'on a voyagé, on a compris ce monde. On a un modèle de développement. Sénégal, un modèle de développement. Il n'y a modèle de développement pour prospérer Sénégal. Il depuis que le Sénégal est Sénégal donc c'est des programmes ils sont là avec leur nom de programme de fi def li, de nañ fi robinet Mafé, plus provoqué euh, lac artificiel mais tout ça ça existe et pourtant à la fin à la limite dara Amouti, ci nañ Macky Sall son programme aussi ça a été bien ficelé mais à la fin dara Amouti rêve euh, euh, rêve yi réalité réalité donc il faut des hommes propres ay nit yu patriote yu bëgg seen réew yu mëna doxal programme programme ay loxo yu set ñokay doxal ay gémmiñ yu goré ñokay doxal ay gémmiñ yu dul lekk riba ñokay doxal ay nit yu dëgg yu am principe ñokay doxal ñoo ñokay doxal donc il faut que ñun sénégalais ñu bëgg suñu réew loolu mooy un patriotisme ci ku mu nekkul kooku ak boo ko joxoon programme mu àdduna sax du ko defar dafay mel ni nga jël ab xar wala ab xaj nga dugal ko ci néeg jox ko lal bu amul éducation da koy day xaju tubaab yi bu ñu tëddee ci lal duñ ko day parce que ils ont été éduqués xaju tubaab yi ñu leen tëddaloon ci lal duñ ko day

ñu instruire leen def ci seen bopp yi dara ba ñu jiital le don de soi pour la patrie programme rafet na loolu waaye ñen nga koy jox ndawal gu duuf nga dem jëndi ko ñëw jox ko xar est-ce que xar dina ko lekk ndawal gu duuf nga dem jënd bu fees del ndawal ñëw jox ko say xar est-ce que dañ ko lekk non duñ ko lekk et pourtant ndawal gu duuf la ndawal gu xonk la dans gu frère, mais ñu ko jox duñ ko nga dem wala say mais donc patriotisme dafa am solo lool motax on a milité ci la mouvance Sonko jomay parce que

am na ko fa fàtte table am nga gis gars yi di commentaire naan lii mooy patriotisme non loolu du patriotisme xamu leen luy patriotisme déedéet mais kooku nee na jullit la wala chrétien la dafa am diine yàlla nee na ci alxuraan bul sàcc <laughs> loolu te loolu du sax jegewul sax patriotisme loolu c'est ay règles primaires la loo xam ne yow sa diine da la ko interdire nit ki jël portable am fàtte wala tablette nga sàcc ko yow sàcc nga génn nga ci diine islam génn nga ci christianisme génn nga ci bépp xeet xeet xeet kooku du patriotisme jegewu ko sax loolu question de principe la question de diine bi ma ne li ma yàlla tere diine dafa ànd ak ay principe li ma yàlla tere nee na waruma sàcc war naa ko jombale sama bopp tubaab bi amul diine sax duñ sàcc tubaab bi fii amuñu diine sax am na bëri na ñu fi amul diine duñ sàcc pourquoi nga war a sàcc loo moomul pourquoi nga war a jël loo moomul pourquoi est-ce que di nga am conscience tranquille jël li nga moomul yóbbu sa kër jox ko sa doom wala jox est-ce que di am conscience tranquille est-ce que saa yow boo xool loolu yow sa xel waru la mun a yëngal yëngal bu dee nit nga. donc loolu du ay patriotisme. li ki da ngay gore we gore wetalu ko gore éducation la éducation la du patriotisme muñ walla nekk baado la respecté woo sa diine bi nga gis loo moomul sàcc ko yóbbu ko loolu ay ay mbirum éducation la ay qualité yu ñu def ci yow yàlla nattu na ma Sénégal ma forfait quatre fois portable carte yi dama ko delloo yàlla nattu na ma loolu pour xool man ba xam man bokk naa ci moom dox naa Grand Yoff ñaari jigéen di dox kenn ki daane portable am Samsung te ko ma ko fomp ko ci sama yére portable bi ba mu set parce que si suuf si la la daanu wetu wetu euh, monument Grand Yoff ñaari jigéen yu ànd kenn ki daane na portable am te yëgu ko mais dama ko for fomp ko waaxu ba gis wokk ko mu turne ma ne ko nii mu ne ay waay grand ñoom ñëpp di yuuxu lan laa ko war a def dama ko war a sàcc non waruma ko sàcc aw ma ko sàcc ko yàqal la yow lan ban njëriñ la ma lii mun a amal lii fii ak un an deux day yàqu mais li ma la def li ma la def du mus a deñ ba yomal xiyam dama ko ko jox na ko maa ngi leen topp nii seen ginnaaw da ko daane ñu dem seen yoon dem après ma dem toog ak samay gars yi waxuma leen du for naa porte parce que du dara pourquoi ma war ko sàcc dox naa liberté six nit daane nit génn ci clando kalando yu jóge rond point liberté six di def noonu di jaaree côté Sicap booy jàdd noonu nit daane portable am bu muy génn mu ma ñëw gis am nit dox dëgg portable ba heureusement xëy na ñooñu mel ñoo ni man mais buñ ko gisoon xëy na mu waa ji ko dëgg ma ñëw génne ko ci suuf si fomp ko fekk xumaan toog xumaan sax mi ngi woon foofu di defar otoom ma ñëw ñu waxtaan ni ma ne ko euh, mu ne ma foo jëm ni ma ne ko non dafa am ku daane portable am fële moom laa for wan ko xumaan rappeur ne ko mi ngi mais comme fii la daanoo bugguma dellu ñibbi sama kër mu sori ci moom léegi ma taxaw nii ci laa la gisee pour toog waxtaan ak yow xaaraale en attendant mu woote fayu ma téléphone bi ci kanamu gën maan xumaan téléphone bi wane sonné ma ne allo mu ne waaw mu ne waaw grand ça man maa daana portable ma ne ko ah bon ma nag dama téléphone bi maa ngi ko téye ci fi nga ko daanelee rond point booy jàdd noonu pour pour oto bi dem si si liberté yi liberté cinq xaw ma yooyu foofu noonu laa taxaw. boo ñëwee ba foofu rek def ma signe mais ndaw si ñëw bu mu waatee ci téléphone am bi dama ko ñoom ma ne ko maa ngi nii xolal ku yëkkati loxo mu ñëw ci kanamu xumaan seede la ma jox ko téléphone mu dem du benn du ñaar du ñett for naa portable bu caar bu rafet koo xam ne danoon doon génn ci otoom ndaw si sax mi ngi woon taxaw noonu ma heureusement wetu buntu kër nit dof mais dama téye portable bi di xaar ndaw si bu mu ñëwee ma ne ko yaa moom mu ne waaye ma ko kay moom laa doon ma ne ko mu ngi nii <laughs> mais loolu du patriotisme ku gorewul gorewul ku gore gore na éducation la yàlla di ko def ci yow yàlla des fois yàlla day éduquer ay ay doomu aadama am na ñoo xam seeni parents da leen di éduquer am na ñoo xam mbedd moo leen di éduquer donc loolu du jegewul sax patriotisme exactement Nous waru jël portable jàmbur quoi di sàcc Des sàcc ay scooter Satch, satch, satch. moo tax on a adhéré au programme Jomai. c'est Sénégal yëpp adhéré nañ ci programme Jomai. vous avez vu cette énorme mobilisation Dom aadama yëpp bëgg ñu ngi ciy topp di daw doomu aadama yëpp ñu ngi ciy parce que xam nañ ni c'est le candidat du changement Ousmane Sonko kum leen joxoon juumul kookoy Jomaay Et Jomaay mooy Sonko si c'est neuf le Samba est battu. ceeg def ci la les ci biir la djem. on a soif d'un changement depuis que le Sénégal est Sénégal te casse la fen casse la njublan casse la naxaate casse la Sénégal yep, faire ça, la njublan naxaate teg dil kese c'est un pays de merde un pays de lâche

Parce que les chiens ne trahissent pas. Les Sénégalais, pour, te trahir, c'est un, coup de baguette magique. J'ai peur des Sénégalais. Parce qu'il y a trop de lâches. Il y a des vendus, des mal pendus, des chiens enragés. Donc, l'autre, il va changer. Le il de vous sortir. Il sortir sortir De vous loolu moo tax ñu jëlee fi kii nga xam ni moom mooy Blondin jóob loolu moo tax ñu jëlee fi Cheikh Anta Diop loolu moo tax ñu jëlee fi Mamadou jaar loolu moo tax Macky Sall tey jëlee fi Ousmane Sonko loolu moo tax parce que c'est très facile nga jëlee fi ku baax c'est très très très facile ndax nit ñu yàqee doomu aadama yi dañuy yàq ngoru doomu aadama yi

des fois tu te demandes est-ce que y a un changement vraiment est-ce que vous pouvez constater dans un pays normal Macky Sall ñëw def un fast track bind amnistie nous avons gën a l'Assemblée ko biir assemblée nationale amnistie et crime amnistie ay événement mais bu suñ jonn yàlla depuis mercredi ba tey le dimanche ñi mu amnistie feeyeeg lépp mais Sonko lan moko ko téye ci kasso bi lan leen ma jomay fay lan moko ko ci kasso bi lan normalement souba bu ko guenewul mais le peuple doit être debout normalement le peuple doit manifester demain ñom ñep lañ wara a parce que mercredi la def fast track am amnistie dugal na ko votalu na ko nax waa PDS dugal leen ci biir def lu muy def te ba léegi Karim seen intérêt rek la yitaloon moo tax yàlla toroxal leen Karim Wade rek lañ gisoon ba dem ànd ak Macky Sall ci amnistie bi Macky Sall tëgg leen wëndal ñoo ñàkk les traîtres les traîtres qui trahissent lépp lu ñu subir mérité nañ ko ils ont trahi le peuple tey ji ndax seen benn euh, morceau boo xam tekkiwul dara buñ ko tàppal la daw na boobu ba léegi mais tey mi ngi o ñoom ñooy subir mais quand même peuple boo xam ni da leen jaay doole def fast track dugal ko assemblée nationale voté ko dama ne suba lundi bu Sonko génnul ak jomaa yi ak yeneen yeneen prisonniers politiques yi mais daman Sénégal dafa ñu war a soulever soulèvement populaire won ko ne nag ah kon amnistie bi yow yaa ko moom quoi nga xam yow da ngaa amnistier sa bopp kese crime yi nga def mais ñi nga xam ne yaa nga leen dugal ci kaso da nga leen war a génne et loolu moi, moi, moi, sénégalais à partir de demain même demain nous ñëpp war nañ jot parti politique politiques, demain war nañ jot fichier électoral bi fichier électoral bi war nañ fichier électoral bi war nañ ko parce que demain il reste 10 jours La constitution bi a à dix jour fichier électoral bi parti politique yépp war nañ cee jot ne mi ngi nii cartographie bi ñoom tam war nañ cee jot ne mi ngi nii loolu bu amul suba dëkk bi yépp war nañ génn manifesté wu parce que loolu moom may ay règle primaire u élection benn tee fichier électoral bi boobu ba léegi ba léegi jox ko kenn cartographie bi kenn yoru ko ci mais sénégalais war nañ mun à partir de demain génn gis nga ay ay waxu loi moom man bëgguma di ko wax Sénégal Sénégal amul loi bandi banditisme d'état la am ay après amnistie bi huit jours amnistie bu ñu ko defee am na ñu ñu pour pourtant Sonko mënoon fa dugg kon Sonko rek moo war a suivre loi Sonko rek moo war a suivre règlement moom mooy xanaa mooy kumba amul ndey xanaa mooy kumba amul ndey avant amnistie bi ba amnistie bi génn ñaata ñoo fi génn xanaa Sonko rek mooy kumba amul ndey moom moom rek la loi di dal moom moom. moom la loi di dal ñu ne ko génne nañ le fichier électoral moom la loi bi di dal ñu ne ko xaar ñu dugalaat la moom la loi bi di dal ñu ne ah amul temps en attendant moom la loi bi lépp moom moom moom Sonko mooy comme kumba amul ndey moom rek mooy subir loi moom rek mooy daj diisaayu loi moom rek ñeneen ñëpp moom ñoom amuñu problème quoi mais moom comme amul ndey ci donc moom dafa war a xaar huit jours quoi bu dee Karim Wade moom moom xaar huit jours dañoo ne jëkk amnistie génn ko mu yóbbu ko ca naar ya bu de Khalifa Sall moom amul amul problème dañ ko amnistie génn ko le même jour bu dee Sonko waaw dañoo amnistie mais dafa war a xaar huit jours quoi Sonko daa mooy kumba amul ndey moom moom lépp moom la war a dal il faut mu xaar huit jours moom ak jomaay ay nitam dem ci ab télé. ñu ne leen duñ leen ñu teg ñu enregistré leen leen teg mais loolu yëpp amul pare waxoon naa ko ne leen ay bu leen bàyyi seen force seen force internet bi la bu leen bàyyi seen force RTS trois minutes la RTS tojul fenn kenn seetaanatu ko man sama bët yi bu mu gëjee xool RTS kenn xamul kañ la depuis ay xale leen yoonu daara jee boobu laa gëj a xool RTS intéressé wul rien tous les soirs ça n'intéresse personne trois minutes Nous cee wax dara lañuy connexion bi force bi connexion Ça, la une yu leen connexion bi la Ça, mobilisation ñoom dañuy tëbal connexion bi wala commencé à saboter Ça, fa seeni affaire ñu donc force connexion la connexion bi connexion internet bi, partout dans le monde du RTS Toi, bi xamuñu RTS RTS yeneen rew yi RTS ñu fenn mais sama live yi def mi ci Facebook bi mi YouTube bi mi partout donc les lañuy jafandu li mom moy ndam li sur ci réseaux sociaux mooy force bi France yi ngeen fay gis xeex yi ngeen gis yëpp ci réseaux sociaux yi ngeen koy seetaane donc réseaux sociaux yi mooy xeex bi tey jii ñëpp gis nañ mobilisation euh, coalition Diomaye mais pourtant RTS tegu ko donc loolu mooy force bi bu leen ko bàyyi vraiment RTS sax perte temps la RTS dem fa perte temps la trois minutes mënoo cay wax dara mënoo cee développé tous te RTS gars yi gi seetaanatuñ ko intéressant wul télé privé bu ñëwee ba léegi RTS daa suulu tekkiwul dara dafa jarul sax njëkkantee ka waaxu wan xaw ma importance bu bugg a may RTS te amu ko amu ko mooy télé bu gën a torox ci télé yi mooy télé bu gën a torox ci télé yi donc ñun lu ñu intéressé mooy ñu sécuriser vote bi ci weeru koor la kenn du añi kenn du ñogonali boo leen ba xëdd julli fajar amul tëdd nalaw ñépp jóg bu ñu jógee waajal suñu bopp dem ci bureau de vote yi occupé bureau de vote yi gars yi voté rang voté ñépp voté

Touba meew beurre chocolat ay miche de pain ci école yëpp gaa yëpp ndogu ñëpp ndogu ñu toog veillé kenn du dem na da ngay ndogu ji ndogu yi ci biir école yi lañ koy yóbbu incha allah dinañ def ay saaku mburu saaku mburu def ay mbana ci buntu école bu ne ñu teg fa mbana café mbana kafe gu fees dal baafaal defar kafe Touba bu saf saf ñu jënd ay paquetu tàndarma et cetera et cetera gars yi ndogu ci jam dina lek tandarma dina nan café Touba mew ku ci ku bëgg mew ak ya xam douté lepp dañ ko défar dina lek ay mburu nañ ci def sandwich nañ ci def chocolat nañ ci def beurre nañ ci def ay nen dinañ ci def euh, ton euh, et cetera et cetera donc kenn du dem tant que bureau yo toju bañu calculer lepp compter kenn du bouger donc non lañ ko décider té dinañ vérifier vote bi ben étranger du voter képp ku ñu ràññee xàmmee la doo ñu romb ci benn bureau de vote naan dugub da ngay voté benn étranger du fi voté nooy leer donc demuñu fenn bu ñu xasee ba yeewu ndogu ci école yi lañ koy defee ci école yi bu soobee yàlla lañ koy defee lépp dina fa am croissant croquette ak chocolat beurre on va sécuriser les bureaux de vote lum len jaral rek jaral lañ ko parce que ken du confisquer suñu victoire Ken du sacc suñu victoire premier tour dañ leen douma ba daan leen tok sen kaw diaspora bi moom kenn waxantu ko ñun amuñu problème bobu diaspora bi diaspora mom mënul nek. ay bourrage d'urne ay transfert euh,

c'est le yulli wulli tulli boobu ma génne stratégie di yulli wulli tulli jamono jii ñoog ñu ngi ci ay gis ngeen coalition Diomaye des centaines de milliers des centaines et des centaines de milliers de sénégalais lañu rassemblé diggante démb ak tey beneen parti politique defu ko fi amul benn parti politique bu fi mu ñaan dajale cent personnes waxoon naa leen ko ci live yee ne leen gis ngeen bu desoon lu dul yàlla ak yonent bi ñu jël kaamil wala lu ñu yaakaar bible jox leen ko te leen waat leen ni yéen gëm ngeen ni mun ngeen gañe élection ñoom ñëpp daw wala ku waat fii fen dee kenn du waat ci ñoom dama ne gaa yi nii nii di tëb dal nii ay candidat barke alxuraan koo ci joxoon kaamil na ko yàlla ne boo waatee fen kenn du waat ba xam yow mun ngaa gañe élection yi oui ou yow yow gëm ngeen ni da ngay gañe élection yi oui ou te boo waatee fen dee kenn du waat ñoo la gën a xam ni dara amuñu ko fi seen waa kër yi sax topp ñu leen dinga fi gis candidat buy wéet buy wéet ba xaru di fi gis candidat buy wër di wéet ba xaru ñaar ànd topp ñu leen mais comme dañoo mën a dof-doflu ak wut lu ñu feesale seen seeni CV wala I naw mais ñoom ñoo la gën a xam ni kenn ci ñoom tojul fenn seen biir kër yi sax tojuñu ko gisuleen benn kaar bu taxaw ci rassemblement Diomaye Faye gisu leen ko ban kaar ngeen fa gis nit yi ñoo jógal seen bopp seen kër yi waaxu ñëw fu ne jóge fu ne ñëw fees fa dell gisu leen benn yoon kaar gisu benn yoon ñu ñuy yàq jox leen ay tiset ñu yuuxu ak a tàcc seen sifflet ak seen sabar candidat présidentiel bi da gis sabar yi ñu ñëw dañuy dem engage ay troupe sabar fay leen xaalis jël ay nit dugal leen ci yàpp leen ci oto def leen ci ba ñu fees jox leen t-shirt jox leen sifflet jox leen soutien jox leen string jox leen jox leen euh, ay paañ jox leen ay sër jox leen musóor ñu ñëw tàcc yuuxu bu ñu wax bu ñu paree yóbbu cinq mille wala dix mille dem seen yoon mais loolu yëpp ñun dund nañ ko fi gis nañ ko après à la fin waa ji de du am tous un pour cent du ko am ñoom ñëpp xam nañ ko Idriss Seck un pour cent du ko am Khalifa Sall un pour cent du ko am Amadou Ba cinq pour cent du ko am ñoom et cetera et cetera dugub bi si trois duñ ko am xamu amuñu tous dañuy amuser la galerie ñoo la gën a xam ni dara amuñu ko xam ne seen biir kër sax munuñu mënu ñemewuñ fa manifester parce que xam bu ñu fa manifester seen jabar yi ne la leen wala seen doom yi ne la leen papa tu fais chier tu li nga wax ne yëpp xam na ni tojo fenn donc ci mbedd mii la ñuy nekk di film ak théâtre waaye damay waxle bépp kuréel bépp association bépp mouvement bépp askan xaalis buñ leen jox lekk leen bu ñu leen jox lekk leen yéen a ko moom seen xaalis la dañ ko sàcc téye ko ñëw nit leen ci fooye koo ci gis benn yoon campagne électorale lay ñëw bu ci paree fàtte la kuñ ci jox luñ leen jox warax leen warax ba mu ba mu rees ak jàmm ay sàcc yu mag lañ dugg Ba ay milliards yi milliards la sàcc terrain yu Sénégal gi yépp la jaay lépp la jaay cité boo dugg jaay na ko ab cartable am la doon yor def ci euh, këy këytu kër yi di wër kii nga xam ne mooy Farba Ngom moo ko doon jaayal ay terrain foire ba yépp Farba jaay ay milliards la ci Amadou Ba am ak Farba Ngom Tahirou jaaykatu string jaaykatu sous-vêtement multimilliardaire la laaj leen ba fu mu ko jëlee jàng sax musul jàng même turam mënu ko liir Tahirou Sarr mais multimilliardaire la Tahirou Sarr Fouta boo ko na turam mënu ko ay string la doon jaay ay sous-vêtement la doon wër di jaay ba ubbi place wetu impôt domaine noonu la xamee Amadou Ba di ràngu ay ay terrain Amadou Ba di ko jox muy jaay loolu moo ko def milliardaire bu dee Tahirou Sarr moo doon milliardaire bu dee Farba moo doon milliardaire te kenn ci ñoom mënu liir turam jànguñu bu dee ñooñ ñoo doon milliardaire donc waxuma la Amadou Ba bi leen doon jox pour ñu dem jaay ñoom ñoo ay multi milliardaire lañ donc il faut que ngeen xam ni ngeen mën a jàpp ni ñooñu tekkiwuñu dara kuñ ci jox lekkal politicien bu leen jox warax leen wan leen na res ak jàmm dama ne ñi nga xam ni ñoom duñ def lu dul achat de conscience jàppee leen yen ay xar jàppe leen ay bëy jàppe leen ay mbaam xuux Sidiki Kaba fu nekk nii ay camion la ga Tamba ñi gis nañ ko ay camion la gaare buntu këram def ci boisson indi ay camion def ci Jakarta fas yéene koo jox maa ngi wax waa Tamba boisson bu leen jox naan leen gâteau bu mu leen jox yéey leen jakarta bu mu leen jox yóbbu leen waaye yéen xam ngeen torox tàngee gi ngeen dal yéen xam ngeen de Tamba bokku na ci dëkk yu gën a torox ci kaw suuf te mérité wu leen ko ay nit yu baax ngeen dëkk ba poussière na xonk na xasaw na tilim na ñaaw na bon na dara amu fa tara dara amu fa Tamba dafa torox torox torox torox bo bo bu buggee xam vraie réalité wu turu torox nga dem Tamba amuñu dara dara dara ba dara booloo jeex Sidiki Kaba ma nga fa depuis Abdou Diouf Sidiki Kaba ma nga fa di taxawalu ba ci maire Diallo bu fa newoon maire ba koku jóge fa ba mu ba souti Touré ba ci ba suñu jonne yalla Sidiki Kaba nga fa paa bu ñak jom bu ñak fayda na ngeen bëgg seen bop bu leen joxee lu mu leen jox camion gaa nonu mu gaare buntu kërëm ay camion boisson camion jakarta camion lek ak nan dafa japp ni ay xar ngeen ñew na taxaw nak fasiyene indi ngoñam ak ay ripaasam bu leen ko jox lek leen lepp ñuus ko ci viro do vote ba mu nekk nit noq ko fa bu gisete wa Tamba da leen respecté du def dara ba mu des lulul dul élection mu ñew dëkk baa nga tàng tàng tàng kenn xamul lu muy dëkk baa nga sonn sonn sonn kenn xamul lan la donc na ngeen am fulla muy Tamba muy Kaolack muy Kolda muy muy Ziguinchor Ziguinchor moom kenn waxatu ko ñooñu ay suppa ndaanaan lañ noonu moom kenn du leen jam naani muy kawlak muy Tamba muy Kolda muy euh, euh, Kaffrine muy et cetera et cetera am leen seen fulla seen fayda ay sew di sow gënuñu leen nday gënuñu leen nday valoriser leen seen nday yi valoriser leen seen yaay yi valoriser leen seen namp seen meewu yaay yi wane leen ni seen meewu yaay yi dafa saf dafa saf suukar seen meewu yaay yi dafa original wane leen ni kenn nampalu leen ci ay ay pëndaxu buy wane leen ni ay nit ngeen ñooñu gënuñu leen ci nday gënuñu leen ci bàyyi faale wuñ leen taluñu leen saa yu élection jotee ñu ñëw taxaw pour fooye leen am leen seen fulla ak seen fayda muy Kédougou muy Fatick muy Fouta muy Tamba ak fépp am leen fulla ak fayda nit da ngay sa bopp da ngay sa bopp donc na ngeen taxaw ci lu mel noonu communes yi départements yi communauté rurale yi etc. etc. Nous, cetera taxaw vigilance sécurisation des votes taxaw nag assister nous ñu am fa bureau de vote Nous avons am fa ay représentants bureau de vote yi nous ñu taxawee bureau de comme nous avons xuree ci caam di tout pour nous clair anti système un système pour une première fois dans l'histoire du Sénégal, l'antisystème doit gagner le système. Sénégal, antisystème, Moussoufi gagner. Antisystème, Moussoul gagner Sénégal. Senghor, là, c'est le système. Toi, bien que Bayon. Senghor, def va mou nek, comme mu Abdou Diouf, c'est le système. Abdou Diouf def va mou nek, jox Ablai Wad, c'est le système. Ablai Wad, jël recycler ci ci ci ki nga xamné mom moy euh, Abdou Diouf, jël yenn yi, rëkk ndig ñenn ñi, c'est le même système. Ray dem ñëw bëgg jox domam mu continuer peuple bi bañ Macky Sall le même système jóge feulé jëlaat ko Idriss Seck ñëwaat c'est le même c'est le même système Idriss Seck Macky Sall Abdoulaye Wade Karim Wade Abdou Diouf Maguette Wade etc. cetera Senghor etc etc etc. donc c'est le même système Faut foog ñu break système bobu noonu foog ñu jëlé fi système faut foog ñu xeex bu dindi système bi Sistem ba wou mwen nini faral de dokhalen. Dokhalen la. Te dokhalen ba wou, mwen yon doudou, mwen le ki mwen gen vye mwese gis. Mwen amou do basen le menm sistem. Se la kontinite. Mwen nekou mwen nou boukou. Nena, de mwen kontinite sistem bi. Sistem bi mwen fèn, satye, noubel, djen de jistis bi, yak si yon askan, yak jistis bi, bombard pouvari, korupsyon, yon mwese fanyasek, ñooñu ñëpp ñu ngi ci biir ñëpp Amadou Ba Amadou Ba ne damay ñëw continuer loolu Macky Sall dafa rey quatre-vingt-six doomu aadama tëj des centaines de milliers de sénégalais moom Amadou Ba nee na moom dafay fas yéene continuer loolu mooy maanaam damay ñëw pour rey leen yéen ñëpp dama ñëw pour yeggali sàcc gi dama ñëw pour yeggali corruption bi nga xam ni Sénégal bokk na ci les vingt et pays les plus corrompus ci kaw suuf mu ne moom day ñëw yeggali ko corruption bi day yeggali disparition mystérieuse yi parce que ku ñëw ne day continuer mooy damay continuer dinaa fi yow dina am keneen ku fi doon Fulbert Sambou ci yéen dina am keneen ku fi doon Didier Badji ci yéen dina am keneen ku fi doon François Mancabou ci yéen waaye dina am keneen ñu fi doon xale yi ñu rey moom leen day ñëw pour continuer kan moo ñaan mu continuer koo xam dafa ñëw ci ay dëj mu ne dafay continuer Hein? les malversations financières les dérives autoritaires banditisme d'État scandales fonciers et financiers, etc etc donc y aura d'autres papes, Abdoulaye Touré ñaanuñu yooyu ñaanuñu yàlla loolu Amadou Ba man musuma tiit ci moom parce que xam naa ni wax naa ko waxati ko nee naa leen Amadou Ba munul gañe biir këram Amadou Ba munul gañe biir këram même biir këram amu fa kàddu et je vous bien ay biir këram amu fa kàddu ñaari jabar la am ñaari jabar yi dañ leen séparé kii mi ngi dëkk Lagon kee mi ngi dëkk euh, Mermoz ñaari jabar yi du ñu tuddante du duñu jaarandoo taal ñaari jabar yi ñu taxaw photo premier jabar ji reconnaîtreul deuxième jabar ja donc moom munul sax dubale ñaari jabaram bon na soxor na sàcc la te kan moo ñaan kooku mu jiite la ku munul sax rassembler sa biir say ñaari jabar mais kooku kan lay jiite kon tey élection bu amoon biir kër Amadou Ba du gagné biir këram. bu dee njabootam kese kese kese du gañe munu sax dajale njabootam kooku munul parcelle bii la gars yi tey euh, la coalition Diomaye dajale des centaines de milliers de sénégalais donc moom munul gañe foofu amul feneen fu mu mun a gañe te ab mag la dafay ñuulal euh, ñuulal rek mais mag jëmm la moo mag Macky Sall amul débat moo mag Macky Sall ni nga gisee noonu ak tuuti waaye muy dóori moo mag Macky Sall grand frère u la dafa torox rek boo toroxee doo tekki dara torox mooy comme ñëw Macky Sall di ko toroxal dàq na ko fi trois ans toroxal ko fi tottu Amadou Ba dugg ci biir di infiltrer di jënd ay nit parce que yor na xaalis ba yor sàcc na ay milliards milliards et cetera et cetera mais dafa torox rek mais moom mag Macky Sall ah Amadou Ba moom mag Macky Sall moo ko magee benn at xaw ma ñaar donc du booy du xale magum jëmm la mais amul dafa ñàkk fayda sàcc la dafa ñàkk fu la ñàkk fayda moo tax ko noppi <laughs> bu jàppoon sénégalais tey di dina leen def xar da ko mën a la Amadou Ba bu fi toogoon yàlla nañ ci yàlla musal te du musaam gars yi danañ puub di ko lekk ndax en bu mu leen dencal ndax yëfu dëmm yu mu mun ndax nu mu capable coupable toog na tekk loolu kooku moom man musuma ko tiita parce que munu fi gañe kenn munu gañe këram munu gañe buntu këram munu gañe mbeddam munu gañe koñam munu gañe parcelle amul fu mun a gañe même bureau de dañ ko cee ñuus élection yu musa am dañ ko cee ñuus ñaanuñu yàlla ñaari waaye sa waay yow yàlla muy république bi toll foofu dem ba torox ba république bi am ñaari jabar yu jubawul ci biir pale mais est-ce que vous imaginez loolu noonu est-ce que vous imaginez a président boo xam ne ay jabaram sax jubawuñu ñaar ñooñu wax buñ leen dajaloon fële àdduna <laughs> mais palais bi day tàkk palais bi day tàkk parce que ku ci nekk ci ñoom dala dala tàkk palais bi day tàkk bu booba donc kooku kooku c'est un irresponsable ñaanuñu yàlla loolu yàlla bu Sénégal torox torox koo xam ni bay mujj am président bu yor ñaari jabaram yu jubawul yu bokkul benn kër duñ tuddante duñ jaarandoo taal ci ab palais yàlla nañ ci yàlla musal kii di Guinéen kee kee di Mauritanien encore pour bañ a fàtte kii di Guinéen ay étranger la takk ay étranger la takk kii di Guinéen kee di loolu soi am la moo xam waaye ñun suñu pale ñaanuñu yàlla te yàlla bu mus a am yàlla nañu yàlla muccal te musal ñu ci ab pale bu am benn Guinéen ak benn Mauritanien ci suñu pale sénégalaise suñu pale sénégalais président ba ñiy naatable ñi naan guinéen la ñi naan sénégalais la benn brique amu ko Fuuta benn brique Amadou Ba mënul wax ni fii laa am kër amul benn brique Fuuta te mu newoon pré euh, directeur général impôt et amul benn brique Fuuta musul reconnaître Fuuta moo tax bu ñu wax ne <laughs> waa ji guinéen la mënu ko dindi à de quatre ans la jóge Pita ñëw à de quatre ans ñoo dëkk Grand Dakar ñaari tali ci këru barak boobu barak yu bari mbàkk yu fay moo ko moomoon foofu foofu la Antoine ñàkk jom njëkk dëkk foofu la njëkk dëkk foofu

Amadou Ba mom kenn titou ko kenn tiitu ko man Amadou Ba c'est le cadet de mes soucis et je sais que il sera le premier bu woté félicité Diomaye Amadou Ba man maa leen wax lol takk lañ ko téré il sera le premier bu woté félicité Diomaye Amadou Ba yakamti lu élection yi jot ñu ñuus ko tok ci ko lamb gi jeex mu dem yoonam mu mun a Macky Sall Macky Sall may ko jàmm mu mu mu tok mom jël temps xol lu mi def dox ko

Kan ke mi seba, nyo Senegal, nyo nyo kou ouvrir le men avèk l'urjans pan-Afrikan. On etè avèk luy. Wèr nan Afrik. Jè fè Gine, Labè, Labè Kèren, Mali Yemberè, Pita, Serokore, Tindimadina, fè pladef. Bè si Gine Forestier, def nan Mali, Kay, Diboli, def nan Mouritani, zis kwa Noua Dibou. Donk man jè si yon pan-Afrikanis. Mwen se mwen ideoloji. nekuma di diviser ay doomu adama ay ki moy li je parle d' dama né étranger bu yorul keuyit ñu wural la këyit këyit boo xam Farba Ngom la ko jox wala keuyit bo xamni ni Abdoulaye Seydou saw mo la ko jox wala keuyit bo xamni Amadou Ba mo la ko jox pour nga ñeu déstabiliser ab rew lolu yow t'es un danger donc képp ko amul këyitu sénégalais ñu la kay jëm bu ko jox pour nga dem lolu on doit t'arrêter lolu amul ci benen deuk Sénégal ni mel di ko recevoir étranger benen dekk du amuko ken amul ay ay ay këyit consulaire yi laté Sénégal dekk dekk dëkk ouverture le bu ubbeeku on n'est pas méchant dekk yépp dañu am problème bo démé sénégalais yi nekk Tunisie dañoo sonn bo démé ci sénégalais yi nekk Maroc dañoo sonn bo démé ci sénégalais yi nekk yenen dekk dañoo sonn Sénégal rek li ni ay étranger fees dalité gaay may len jàmm ak salam parce que nous cultiver la paix loolu ci sénégalais yi la donc kenn mënu leen seedeel ay affaireu euh, soxor ay iñaan des demee des du Sud ñu ngi leen fay rey donc ñun dans ci monde mais on a droit d'alerter bépp étranger que que tu sois guinéen malien mauritanien etc. etc d'arrêter que ñu utiliser le à des fins politiques pour que déstabiliser suñu pays. loolu dañ ko déplorer te dinañ ko artu doomu aadama yi da leen fait attention bu leen ci kenn dugal 1000 francs jaru ko 10 mille francs jaru ko parce que mënuñoo nekk panafricaniste ak ay nit yoo xam ne duñu ay pas ay pyromane lañ ñu ñëw ci ay réew ñu jël kayitu jàmbur yi jox leen pour ñu dem voter ji ça c'est pas des panafricanistes et on doit que tamit duñu baax a baax a baax bu ubbi suñu kër ay assassin ñëw di ñu rey duñ ko def on le fait donc balaa panafricanisme nationalisme la ñuy wax souverainisme nit bu amul souverain souveraineté mënul nekk panafricaniste da ngay am souveraineté ba pare sa bopp moo ma gënal du bañ naa la doog a wax leneen enracinement après ouverture balaa nga wax panafricanisme da ngay wax nationalisme da ngay wax souverainisme doog a wax panafricanisme donc sama bopp moo ma gënal di bañ naa la bula kenn dugal ci ay mbirum politique ba nga ñëw di déstabiliser réew wala di yàq réew voilà léegi nag Amadou Ba am ñaari jabar kii di guinéen kii di mauritanien wax naa si sa vie we don't give a damn mais xam nañ ni munul juba munul sax jubale ñaari jabaram ku munul jubale ñaari jabaram ñaari jabaram yoo xam ni jubóowuñu du ñu jaaruloo taal dama ne ñun ñaanuñu yàlla dugal ci suñu palais benn guinéen ak benn malien ak benn mauritanien yu jubóowul ñun ñaanuñu ko yàlla am nañ ci droit en Guinée qui fa qui fa nek ñun Sénégal bañu ñu lolu parce que ñun suñu bir palais tubaab yeewoo na fa bu weex tal yéwo na suñu palais mulâtre yéwo na suñu palais sénégalais yéwo na suñu palais donc ñun bañu ñu ben guinéen yéwo suñu palais wala ben mauritanien mais dañ ne ben guinéen ben mauritanien ñu jubuwul di reyante ñu tasaare leen donc ñun amuñu problème mu intégrité amuñu problème aussi euh, intégration buñ ko amoon kon tubaab du yeewoo suñu palais jabaru Abdoulaye Wade tubaab bu xonk cooy la jabaru Abdou Diouf euh, mulâtre la jabaru Senghor tubaab la jabaru Macky Sall nit ku ñuul la lépp yeewoo na suñu palais métis yeewoo na fa ay ñu weex tàll yeewoo nañ fa donc ñun amuñu problème boobu kon benn guinéen mun na fa yeewoo wala benn mauritanien whatever why not mais dañ ne ñaari jabar yu jubawul duñ jaarandoo taal duñu wax ci biir suñu palais duñu ko nangu tey te duñu ko nangu ëllëg c'est clair maintenant am nañ ci droit te tam ne Amadou Ba sénégalais vous les des ne guinéen ils ont droit même guinéen yii depuis que Guinée a existé mais le musulman <laughs> bu Guinée existé ba léegi gens musu ko musu bu mu mais ils font tout pour que les donc lol, am fofu am fi ñun tamit comme ngeen yi ba musul am depuis que Guinée a existé donc ñun non lañ tam mais Guinée bañ ko <laughs> droit ba nga am di pour sa Guinée te musul am pour que ben guiné bañ c'est le droit le plus absolu ci sénégalais yi et on est d'accord avec sénégalais ñoo lànk ne Guinée du leen jiite Amadou Ba am na nationalité française Amadou Ba à l'âge de quatre ans la jógee Guinée amul dara dara bu mu am ci yeneen région yi bu amee benn commentaire dof boo commenter. commenté da ngay may promotion commentaire dof bi mais vous nga bañ ko commenter. je vais pas commenter je pense que tu insistes pour que ma commenté ci ce sa waxi dof bi mais non non non non je j'ai dépassé cette étape là j'ai dépassé cette étape je vais jamais commenter pour may la sax promotion ci waxi dof bii nga wax nii ay waxi vrai waxi dof koo xool xam ne jàngoo euh, jamais <laughs> y a des fois da ngay pour nga wax ci pour may ko promotion quoi pour may promotion mais vraiment commenter dof moom on perd pas notre temps dessus on est pour euh, l'instruction dara ci pays. yi quoi depuis 1830 huit ngi pour Guinée jiite C'est muy la triste réalité wax waxe dof Guinée pël Guinée tu mélange pël damal bo démé Guinée di nga xam c'est la réalité qui existe là-bas damal Guinée mi ngi mel ni nga nga nga wax waxu Guinée di wax waxu coup d'état combien de coup d'état eu en Guinée nga né non yaa ngi jaxase Guinée coup d'état te ñëpp gis nañ lool c'est que il faut il faut être très bête pour dire nos commentaires et moi j'ai pas de temps j'ai pas de temps à ça man damay wax ak ay nit c'est la triste réalité Guinée a eu combien de coup d'état

une seconde do jël sa temps xalat ci mais man munuma mag ak sama papa li ma jox ci temps may ñew bugg la ko jox non munuma ko non non non bu sa papa raté sa éducation mental spirituel man munuma la jox dara munuma man il faut bop am dara ma mun ci am sax luma ci yok mais bop amul dara ñaanu wako yalla bon non ba yow tamit c'est leen daal jàllo ba daw na ñëw Dakar ñaar Guinée luñ ci rey seen bopp Eh, ah, il y a toujours eu ce genre de problème là. Ils ne connaissent rien de l'histoire. Ils doivent régler les Et ils n'ont pas voyagé aussi. On me dit, ben, je Voilà. Donc, les responsables, ils sécurisent le voies. Ils ne sont pas plaignés. Ils ne sont pas Les responsables, ils sécurisent le voies. Ils sont clairs. Les médias, c'est un peu comme ñu lànk jóg taxaw comme nu ma ko waxee yulli wulli tulli yulli leen seen poos yi bu ñëw na ngeen yulli poos yi yulli yulli yulli mooy lan vider ngeen vider poosu corrompu yi yulli poos yi wulli leen ci bureau de vote yi wulli yulli wulli boo leen yullee seen poos yi wulli leen ci bureau de vote yi maanaam dóor lañ ba ni kaw wulli xam ngeen lu wulli dóor kaw bëgg bëgg bëgg dóor leen ba ñu kaw ba ñu Amadou Ba kaw seen bureau de vote du ñu am deux voix dañuy yulli seen poche yi yulli nag moment bii la mooy moment campagne pré campagne et campagne dañuy yulli wuy yu lépp luñ leen jox ngeen lekk ko yulli leen seen poche yi ba ñu jeex tàkk ñu dem campagne ngeen wulli leen ci bureau de vote yi bañ def keng ñu jexe résultat yi ngeen tulli seen maam outside mooy yulli wulli tulli yulli seen poos yi ci campagne bi wulli leen ci camp ci élection yi ci bureau de vote yi tulli seen maam ci kaso yi yulli wulli tulli wulli ak ndulli benn lañ wulli ak tulli ak ndulli benn lañ benn benn fra ndulli ndulli dóor wulli benn la rek damay bañ guddal yulli wulli ndulli tulli yulli wulli tulli yulli wulli tulli yulli wulli tulli yulli wulli tulli ndulli yulli wulli tulli hey yulli wulli tulli yulli wulli tulli ndulli refrain lu refrain am naa ko donc ndulli waaw defoon naa ko ci mais ci benn refrain la ci feneen donc yu ndulli mooy wulli wulli ci biir la ndulli ginnaaw la wolof la ndulli wulli ci biir nga koy wulli wulli moo gën a bon mbaam dañ koy ndulli ndulli ginnaaw la ndulli mun na bañ a saf ndulli mun na ko bañ a rey mais wulli day reyaate ci biir ci biir la à l'intérieur wolof dafa dafa dafa dafa dafa dafa philosophique wulli dañ koy dóor muy jóg dul dóor mun na yàq butit yi mun na yàq dënn bi mun na yàq kanam gi mun na ko rey nit buy défendre day nëpp kanam gi nëpp biir bi jox la ginnaaw donc wulli moo raw fuuf ndulli wulli day reye te ndulli mun na bañ a reye donc yulli wulli tulli wulle leen ba ñu set wecc ay ñoom Farba Ngom ay ñoom Ablaye Seydou Sow ay ñoom Sidiki Kaba ay ñoom Amadou Ba

ngeen dem ci vidéo ba di ngeen tulli len dóor len mam. bëgga dé wulli len après tulli sen mam fiche électoral bi inshallah à partir de demain je pense que gaay dinañ ci gëna accentuer pour mën ci jot voilà nañ am taxaway bu mat seuk taxaway bu mat seuk nañ ko am nañ am fulla ak fayda ak taxaway loolu mom moñi may ndam parce que les yi ñi wax naan ma ngi euh, euh, Ndiaga chercheur de l'ICAD, mu fichier bi bu mu gis amna 826 bureaux de vote délocalisés et transformés en bureaux de vote fictifs donc il y 826 bureaux de vote fictifs mom Ndiaga Gueye chercheur de lucat nous avons 1054 bureaux de vote non euh, localisables. Moi et ma femme, 1054 bureaux de vote qui sont ñom fictif non localisable yu kenn 826 xam fu mu nekk 826 bureaux de vote délocalisés, déplacés. délocalisé yu ñu ñu bureau de vote fictif pour ces nit yi fa ñew ñu transfert de euh, d'électeurs pour nous, mun fa voter nee 1098 abris provisoires nous ñu transformé en bureau fictif qui àll bi nee Dakar 189 bureaux fictifs Dakar kese loolu l'expert Ndiaga Gay, chercheur Likat mokwa. wax nee a 189 bureaux de vote fictifs entre Pikine Guédiawaye Kermassar mu ce sont les départements qui ont plus de bureaux de vote fictifs délocalisés donc wax ji dafa am solo bu mu ko waxee ba léegi gisoo benn plainte pour ñu topp ko di dara donc il faut que sénégalais yi gaaw jot fichier électoral bi auditionner fichier électoral bi auditer fichier électoral bi gaaw nu mu ñu jox ko expert yi ñu dugg affaire tout il faut que lolu am parce que li l' expert Ndiaga am importance la gisuma na gaay Nous accentuer ci ñi ngi ci nous bi ñi ngi ci mouvance bi daw taf drapeau des c'est tout tout rafet na ci affaire bi camion tout ça c'est joli

bureau de vote délocalisé et transformé en bureau de vote fictif vous avez 826 bureaux de vote fictifs. Ils délocalisée délocalisé bureau de vote fictif 1054 bureaux de vote non localisables. C'est grave. Le reste, ça te fait 1000 presque 2000 1054 826 ça fait presque 2000 1098 abris provisoires transformables en bureaux fictif ça fait 3000 et quelques Dakar a 189 bureaux de vote fictif entre Pikine Guédiawaye et Kermassar. donc le travail fait 3000. sénégalais fichier électoral donc il faut ñu jot pour vérifier fichier électoral bi nombre d'inscrits primo votant yi xam ñu war a voter xam village yi ñaata euh, ñu xam cartographie bi ñaata bureau de vote moo am ci communauté rurale bi et cetera et cetera et cetera donc dañ ko war a am en attendant gars yi itam vérifier vérifier est-ce que fichier électoral bi ngeen yore war a vérification ba xam yéen bokk ngeen ci fichier électoral parce que chaque jour problème boobu laa am ak ñenn ñi nag. Sénégal Sénégal da ngay wax ba dee des fois dañuy gis ñu jox leen lien ñu dugg ci xool ba xam bokk nañ ca di ko jaawale ak fichier électoral. fichier électoral du lien bu ñu lay jox nga dugg xool yow yaay vérifier ba xam yaa ngi ci fichier bi joxuñu la fichier bi de hey këyitu kër gi ak est-ce que yaa ngi ci kër gi bokkuñu ñun këyitu kër gi lañu ñu laajte laajuñu ñan ñoo nekk ci biir kër gi encore une fois laajuñu. ñan ñoo nekk ci biir kër gi sept millions d'électeurs wala huit millions d'électeurs la ñu wax sax yow nga nekk ci dem xool ba xam yaa ngi ci ne veut pas dire que <laughs> yaa ngi est-ce que maa ngi ci livre bi ak maa ngi yor livre bi bokkul lii boobu da lay bëgg won ni xoolal ba xam yaa ngi ci livre bi <laughs> loolu kese la mais joxuñu la livre ñun livre bi la laajte xam ñaata page la xam ñaata chapitre la xam ñaata lan mooy sujet bi et cetera donc ñun livre bi lañuy laajte livre bi lañ soxla ñu xam ñaata page la xam ñaata séquence la xam histoire bi nu mu demee xam xam lan lay wax xam chapitre yi xam développement bi et cetera et cetera ñun livre bi la ñuy laaj. laajuñu leçon bi ba xam ci livre bi wala chapitre bi mi ngi ci li livre bi la ñuy laaj pour muy clair donc nañ ñu jox suñu livre fichier électoral bi nañ ko jox parti ñu tok chambar ko bu ñuy dem bay wax chambar kay moy xam fichier électoral bi cartographie bi ne a ah, cartographie amna 16000 bureaux de vote vous avez ci région de Kaolack amna 1 000 bureaux de vote département bi amna tant de bureaux de vote arrondissement bi amna tant de bureaux de vote communauté rurale bi tant de bureaux de vote village yi ont tant de bureaux de vote, lolu mom moy fichier bi ak cartographie bi lolu la laaj ce yow mëna lolu C'est rek que laaj donc lolu lañ soxla pour vérifier pas pour vérifier ñu jox la lien lien bu ñu génne woon ñaari yoon dugal nañ lien génne ko ñaari yoon njëkk nañ dugal lien gaa yi di xool ñu génne ñu dugalaat beneen lien génne donc ba léegi dañuy dugal di génne ay lien voilà donc loolu soxla nañ ko xam léegi nag di wax Macky Sall ba léegi libéré gul prisonnier politique ya ah. ba léegi gaa yi ci kaso bi na génne prisonnier yëpp moom moo fi def fast track vite fait waaxu créé fi amnistie am li def dindi ay crime am toog ba toog na libéré doomu aadama yi point loolu la wax voilà dañuy dugal di génne di dugal fichier bi di génne di dugal fichier bi di génne waaw bu ñu joxe fichier bi rek lépp léegi leer lépp dina leer lépp dina leer dinañ mën a vérifier dinañ mën a xam étrangers yiñ ci def dinañ mëna xam bureau fictif yi dinañ mëna xam bureau délocalisé yi lepp dinañ ko xam nañ ñu jox fichier électoral rek inshallah lool rek lañ leen laaj c'est pas compliqué té demain war nañ ko jox parce que dañ ñëw euh, constitution bi néna 10 jours à partir de 15 à 10 jours donc demain l'élection est di dess 10 jours nañ ñu jox suñu fichier électoral mais l'air té nañ ko réclamer ba paré nak gaay tam di baña faté di réclamer la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques bu leen faté loolu engouement bi neexna top ci affaire bi neexna rafetna rafet na loolu ne allah mais bu len faté di réclamer la libération des détenus politiques à savoir Ousmane Sonko Jomay Fay, et les détenus politiques et que justice soit faite loolu ñu doon xex demb ba légui waruñu ko bayyi donc libérer Ousmane Sonko Macky Sall libérer Ousmane Sonko Macky Sall suñu waxu demb moy suñu waxu tay avant amnistie bi loolu lañ doon wax après amnistie bi nga def noonu faux faux amnistie générale bobu mom lañuy wax moy libérer les détenus politiques libérer Ousmane Sonko libérer Ousmane Sonko libérer Jomay Fay. libérer les détenus politiques moy suñu waxu demb moy suñu credo moy suñu waxu tay moy suñu xeexu demb moy suñu xeexu tay xaruñu amnistie xaaruñu dara dama ne Macky Sall libérer les détenus politiques Macky Sall libérer Ousmane Sonko Macky Sall libérer Jomay Faye voilà man bokuma ci nit yi ngay nalawal ñu doon yuuxu demb libérer Ousmane Sonko nga ñëw def benn amnistie faux amnistie def lu ngay def leen ci wi dama ne libérer les détenus politiques Macky Sall libérer les détenus politiques yi ku la ko wax moy deug ku la ko wax moy deug suñu xex nañ ko continuer les sénégalais doivent continuer de réclamer la libération immédiate et sans condition de Ousmane Sonko la libération immédiate et sans condition de Diomaye Faye la libération immédiate et sans condition des détenus politiques bu mu neex ba ngeen faté doomu adamay yi ci biir kasso yi nga xamni dañ doon ak libération dafa wara immédiate et sans condition da ngeen ko war di réclamer boo leen dajalooyee réclamer la libération de Ousmane Sonko boo leen dajalooyee réclamer la libération de Diomaye Faye boo leen dajaloo réclamer la libération des détenus politiques lo len dajaloo de réclamer la libération de tous les détenus politiques waye boo leen de réclamer que justice soit faite pour ñi nga xam dañ leen wax bi neex na loolu mais loolu dee leen koy wax dee leen koy yuuxu lu ngeen di way di way ay sonko jamaay jamaay sonko dama ne dee leen koy escandé escandé escandé libéré sonko libéré sonko monde bi yëpp di leen dégg il faut que tubaab bi xam ba léegi Sonko ngi ci kasso bi il faut que tubaab bi ak l'opinion internationale xam ba léegi Jomay Fay le candidat présidentiel mi ngi ci kasso bi il faut que tubaab bi xamni wala l'opinion internationale xam ba suñu jonn Yalla tay amna ay prisonniers politiques dans les prisons donc bu len ko fàtte lillaahi wa rasuli boo leen dajalowee rendre len hommage ñooñu de len yuxu sen tour yi de len réclamer sen libération lolu moy gor lolu moy dignité humaine té lolu ngeen war di def bu len ko fàtte tay bu len ko fàtte euleuk bu leen ko fàtte tey bu leen ko fàtte ëllëg bu neex ba ngeen fàtte loolu doon na ma neex ma tok di setan di deug ñepp te scander di scander le nom de Ousmane Sonko libéré Sonko parce que l'OLU mo fi nekkoon depuis 2021. mille vingt et un ba suñ jonn yàlla tey Sonko ci kaso bi donc dañu wara continuer diko le réclamer dañu wara continuer continuer di réclamer bu jomay Faye parce que un candidat heure bi ci mbedd la ko waroon dañu wara réclamer la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques dañu wara réclamer que justice soit faite ci ñi nga xam dañ leen ray rey reyin gu ñaaw bu leen ko loolu laa gëm samay démb xeexu démb sama xeexu tey tant sottiwul duma ko bàyyi ak loo mun a def amuser la galerie jouer ci nit yi conscience yi fooyee nit yi du tere man damay focus si sama xeexu démb ak sama xeexu tey tant loolu sottiwul duma ko bàyyi sama xeex la donc boo leen dajaloo da ko yuuxu ba média occidentaux yi yëg ko da leen yuuxu da leen ko wax da leen ko wax dee leen ko wax saa su ne dee leen ko fàttali doomu aadama parce que l'olu, c'est arbitraire c'est des arrestations arbitraires dee leen ko xeex xeex leen injustice continue leen di ko xeex ak nu mu neex neex neex Sonko doit door dara téyetu ko ci kaso bi na ko ne na génne doomu jàmbur ji bu bëggee jàmm na bu les détenus politiques bu et j'appelle tous les Sénégalais ñuy réclamer la libération de Ousmane Sonko la libération de Jamay Fay, réclamez-le yuuxu leen c'est de l'injustice totalitaire yuuxu leen ko juutal faal ay sa juutal faal loolu moom waxoon naa leen ko daf ñàkk na jom ñàkk na dignité ñàkk na personnalité man foog naa ni changé na mais ndakato ba léegi mi ngi ci tuxum bon bon bi ay sa juutal faal bon yàmbaa boo ko bàyyiwul yàmbaa boo ko bàyyiwul ak fenal gor ak sosal gor ci ni ngay mujjee nga ñàkk jom kenn bëggul nga doon yaayam do sax rus wa ñun ñun la neex nañ joutalante yow ko bo bu lo joutale dara du ko fa fek sa ndar paan bu yaani in Himalaya sa ngandam ma mi ndar paan bu yaani Himalaya ñak nga nday jom ñak nga dignité humaine do sax nit yow yow boo juróon doom sax dom bi xaru bo juron dom dom bi xaru ay sa joutal fal ñak nga nday dignité yow rusan na ñu juutalante bu la juutalee ñun suñu gat na fuck you demal fele mu juutal la what the fuck dig ci katu jon wi nga don ma xaram deug nga yow yow yalla bo am dom parce que bo amé dom di nga ko gatchal ba mu faatu otax da danga bu mëno bol bu nga bu am nga fukki jëkkër juroom ñaar ba léegi joxooñu doom yalla yalla yalla du nit de yalla yàlla rusloo na nga jural nga jur doom yàlla ko rus parce que doom doom boo jur mu xaru parce que benn doom ñaanul yàlla am yaay bu mel ni ay Aysatu euh, juutal Fall yi saaga sanday ma bu ma ñëwee juutal la yow yaa euh, yaa mën a dul dafa bokk bu ma ñëwee juutal la ah <laughs> sama jëkkër neen looloo ko ci nee neen dama laa bëgg wee sa jëkkër daa tekki dara sa jëkkër daa tekki sara boo amoon jëkkër ju mel ni man wala keneen ku am fulla dàq kat dina sanday bu yàgg nga am nga am benn markatu tuun bu toog ci biir kër ga ah, sama jëkkër ne ne looloo ma ne waaye <laughs> eh, yow saa yow amoo jëkkër ju baax ñu ñun ñu jëkkër ju am personalité du la téye ci kër jëkkër ju am jom jëkkër ju jëkk jabaram joxul lu mu lekk jëkkër bu yor këram di ko gere di di joxe dépense jabaram nga wax loolu <laughs> jabaram moom du fa fanaan moom day bula ndayam mais yow dana la topp yow nga wax ko loo yab doo ko yabee moom bay saaga jabaram bàyyil fen ay loolu dafa bokk ak juutal jigéen mais góor mu nga eh, eh, bàyyil fen yow yaa mën a dul yaa naa góor sax mais jigéen di jigéen loolu rek la am dignité jigéen dignité rek la am bu ko ñàkkee loolu xar la bu ko ñàkkee moom ak Aysatu juutal faal ñooy tolloo jigéen bu ñàkk tollook ay satu juutal faal parce que dignité la jigéen dese jigéen bu ñàkkee dignité moo yam moo xar xar dañ koy juutal xar lañuy juutal mbaam dañ koy juutal parce que mbaam day juutu xar day juutu yow ngay nit kee du sa jëkkër du sa dara ne da lay juutal quatre pat quatre pat xar la juutal quatre pat la te quatre pat foo ko déggee xar la bëy mbaam xuux mala mala mooy quatre pat kee du sa dara di la juutal Aysatu juutal faal bu ko kenn woowee Aysatu Jóob faal Aysata juutal faal Aysata juutal faal dañ ko juutal waa ji def na ko bu ñëw dama lay juutal xalaatul tëddee ko xalaatul bàyyi ko mu tëdd non daf ne da koy juutal quatre pat da koy dama lay juutal boo amoon jëkkër ju am dignité boo amoon dignité rek déjà sa jëkkër bàyyi na la jëkkër nag mbokku na ci kutumbaasa ñu gën a torox ndayam ci mont bi moo tax mu ne moom noonu bëggee na la noonu waaye ah la ko bëggee xam naa xëy <laughs> ku la xool na mel rek takk la mooy ni kooku amul sa espoir ku psychologiquement sa jëw sa jëkkër amul espoir dans sa xam naa ku doon dee la wala nekkoon ci dund ak dee wala torox muy parce que ku la xool ngay mel ni mbaam xuux ñuy tuutal sa ndey mu ne moom bëggee na la doon nga xam ne kooku amatul espoir ci vie bi koo xool xam ni amatul espoir ci vie bi <laughs> ku amul espoir rek moo lay dakk ñàkk nga nday fayda ñàkk jom doo rus moo tax sa xet gi yàlla leen def dinañ sëy ba faatu doom duñ ko génne ci àdduna mukk yàlla moo xam parce que yàlla du indi doomu aadama di la nattoo yaay ju bona bona bon bu ñàkk dignité yaay bu ñuy saaga ndeyam yaay bu soo ñàkk fayda yaay mu ñàkk xorom yaay bu amul benn dignité yaay bu taxaw ci tale ah, ñoom dafa ne dañ juutalante <laughs> ñu ngi sant suñu yaay yi moo tax wooy boobu yuus naa ñu sant suñu yaay man maa ngi sant sama yaay kenn mu <laughs> yaay lay la aw ma yaay jooju de dëpp yaay fight kat boo xam ni dafa xeex xeex xeex dugg ci lu yi jaay crème jaay glace jaay radi ba tabax kër ba tabax étage di fight di fight yaay yooyu lañ am moo tax mu jur doom bu am dignité bi moo tax ñu jur doom bu am dignité bi di wax ñi seen yaay torox ba ñu jur ay Aïssatou juutal faal ñax ndayam fayda xar bi nga doon mbaa xuux bi nga doon waxuma dara muy <laughs> non mais duñu rus quoi duñu rus nee na yoo dàmbooj lay xaj xas <laughs> déglu leen nee na dàmbooj lay xas quoi mu ne nee na Farba Ngom du fen mais yow loo si xëy Farba Ngom ba xam ne du fen yoo sa waay yow yow waxooñu ñu yëpp de <laughs> mais nag intéressé wu ñu parce que Farba Ngom bu fekkee sax da lay diw di la juutal amoo cafka quoi bu fekkee da lay juutal tamit amoo cafka parce que juutal moom c'est sur que bëggul gis sa kanam bëggul gis sa kanamu mbaaxu xuux boobu ku lay juutal rek bëggul gis sa kanam gi parce que ku ñuy juutal sa kanam nee lay féetee donc donc sa kanam rafetul rafetoo xasaw nga xeesal nga sa xeesal timpi tampa du ngay mel ni taxi jaune noir double couleur donc seexlu na la ba nga xam ne ak sa xeeñaay ak sa xasawaay mu tax mu lay juutal bu la juutalee sa kanam lay féetee moom mu mu lay juutalee ginnaaw donc bëggu la gis sax moom ku ñuy juutal bëgguñu ko gis ku ñu juutal xar lañ ko jàppee mbaam lañ ko jàppee waru muy porno donc yow comme dañ lay juutal moom jomm na la jàkkaarloo di la xool kanam ak kanam di la laal moo tax mu lay juutal kooku xoolaat ko loolu loolu day wone ne rek sa ñaawaay sa xasawaay sa xeesalu timpi tamp sa double double couleur yi sa deux couleurs sa si jaune noir bi sa tànk yi ngi ñuul kukk sa kanam gi xeex sa loxo yi jaune noir du deux couleurs si jaune noir moo tax ku ñëw ëpp yóbbu te si zone noire nga ku ñëw ëpp yóbbu deux mille cinq cent da ngay dem trois mille da ngay dem trois mille cinq cent da ngay dem quatre mille ba cinq mille six mille yëpp ku ñu ëpp yóbbu tax si zone noire nga double couleur yomb oyof oyof sër moo tax comme xasaw nga xeeñ nga ñëpp dañ lay buub di yóbbu di ëpp di yóbbu moo tax moom jomb na xool la mu lay juutal c'est normal bu la noonu bu ma la ñëwoon tëddee sax yoo nga xam ne ki da nga tëdd mu lay xool tëddee la mais dana juutal daf na bu bu ma ñëwee dama boo ñëwee dama lay juutal boo ñëwee yow da nga ne ko war nañ gise mun ne mu ne la yow boo ñëwee waxu la bu ma ñëwee de boo ñëwee dama lay juutal donc moom ay jabaram du leen juutal te pourtant jabaram yi la waroon gën a jekk waxee nii mu waxee ak yow mais moom ñimawul Farba Ngom reewul bay wax ay jabaram dama lay juutal mi ngi ci yor ñaar yow caga bu bon bi caga bu perte bi caga taxi zone noire bi xal xasaw bi salte bi yow la ñuy juutal moom ñi mu lu la wax noonu saaga wu saaga sanday noonu ñi ko wax jabaram yi mais yow ñi ma la ko wax tu n'as pas honte yow jëkkër ju baax sa boo ko amoon xaru na vrai doome xaram nga Aïssatou Juutal Fall vrai doome xaram nga de la pire espèce yu ñu war a éradiquer nga ne da xas <laughs> non réew mi moo neex mu ne Farba Ngom moom xam na ko quoi du fen <laughs> yow réew nga <laughs> yow kan ngay fooyee ay sa du julal faal nga ne Farba Ngom Farba Ngom mu dàq duul ndayam Afrique sow jant Farba Ngom daa duul ndayam ba am alal dafa fena fena fen sàcc ba am alal Farba Ngom nee na giriw la musul liggéey jàngul jóge Fuuta ñëw toog siiraas na dàll dàll sax siiraas na ko dem na ci làmb gi di yor ay bain wu Eumeu Sène mii te Eumeu Sène yàggut bu ko ki nga xam ni moom mooy euh, Tyson bàyyee yàggut donc même pas en deux mille bii moom da doon ba ay ay bain mystique la yoroon nga ne kooku tey am na fi ay milliards ba dafa xeeb daa mbóoj nawloowu ko <laughs> yaa dëgg sa ndey yow ay sa juutal faal yaa dëbb sa data ndey yow yaa kat sa ndey yow yaa doom ay doomi xaram mais puus na chariot siiraas ay dama ne Farba Ngom siiraas dall la njëkk def bu mu jógee Fuuta da doon siiraas dàll siiraas katu dàll la woon mi ngi doon toog euh, lu mu tudd lan la koy waxee kora géej kii kii garage géejawaay xam ngeen fan mooy garage géejawaay HLM 5 garage géejawaay foofu la Farba Ngom doon toog di siiraas dàll siiraas jóge fuuta déggul sax wolof bu baax di siiraas dàll siiraas katu dàll mu pare ñu lijjanti ko mu dem aéroport di puus buret chariot aéroport puus katu chariot jóge fa dugg ci ay affaire u bain dem ci ay euh, bain gérer bain mystique du sotti saafara ki nga xam ne moom moom moom mooy euh, tajinga mu pare fa di def géwél géwélisme yi dem ci ngénte yi di taxawaalo ko wëndaalu dugg ci Amadou Ba Amadou Ba bi di ko jox ay terrain muy dem di jaay tukulóor yi nga xam ne ñoo nekk ay Gabon ak ay tukulóor yi jamanteer yi ñoom la jaay boo boo demee tey foire West Foire Nord Foire foire boobu yëpp pour tukulóor yi fa ëpp moo leen jaay terrain yi terrain yooyu la Amadou Ba doon sàcc di ko jox Farba Ngom Farba Ngom di jaay euh, ñi mu parce que géwél la géwélu tukulóor la géwélu tukulóor mu xam tukulóor léegi Amadou Ba bu sàccee ay terrain jox ko mu dem ci euh, patron yi nga xam ne dañoo nekk ay Gabon ay dëkk nekk ci dëkk yi jamanteer yeeg yooyu ñooñu la doon jaay terrain yi loolu moo tax boo demee foire tukulóor yi fa ëpp niñ fa mel parce que ah, moom moo leen ko doon jaay noonu la demee ci loolu la enrichiru ba dem ne day jaay suuf moom bu muy sàcc ak fen bu muy siire Dame Mbodj ngi jàng muy siire dàll Dame Mbodj ngi jàng mu mu jóge ci siire dàll dem di puus ay buret aéroport boobu Dame Mbodj mi ngi jàng mu ngi investir dans l'éducation mu jóge foofu di sotti ay saafara Dame Mbodj ngi jàng ñu jox ko ay kay dàmb génn dagg diplôme yépp taxaw macha allah mu dugg di sàcc ay ay terrain ñu koy jox muy sàcc terrain di jaay dàmb mu ngi ci école bi di jàngale nekk professeur anglais loo xam ne namp ko ci papa namp ko ci yaay jàng ko ba koy jàngale daggi diplôme am bu dàmb dama ne mu baal ma saw dàmb sax moo gën ndayu sa nday yow Aysatu juutal faal yow yow yow yow doomu xaram jooju nga xam ni giroo ñaankat la sawu dàmbooj moo leen gën sawu dàmbooj moo gën baayu Farba Ngom moom mi jur ab doome xaram bu amul benn diplôme musul jàng musul bind turam sàcc fen taxawaalu rek lay liggéey ak a tagg maamu jàmbur yi nga bëgg a nawloo dàmbooj ak Farba Ngom nga ne Farba Ngom mu xoolu sax Dame quoi xam nga genre Aïssatou yi fa parce que respecter les sax de la sacrifice mais Aïssatou a manqué du respect à tous les professeurs du Sénégal Aïssatou a insulté l'intelligentsia sénégalaise ñi ñi jang ba doon ay professeur mu ne ñooñu dañoo torox ki gëriyoo taxawalu kat dal soti katu beu mystique mbeur neena koku kooku nawloowul professeur yi donc Aïssatou Doudou Fall dafa saga bepp professeur ke bu nek universitaire wala nga bu nek bu collégienne wala et cetera daf ñu dafa l'intelligence ya jang dafa saga xam-xam dafa jël ko jàngul xamul amul dara sàcc ak fenn triyande tagg maamu jàmbur moom moo lu yor ay milliards kooku la kooku kooku nee na moom nawlawul dàmb nee na laajatuñu ki nga xam ni mooy Farba Ngom fu mu jëlee otoom nee na day laaj Dame fu mu jëlee oto <laughs> donc Aïssatou Dioutal Fall nee na benn professeur warul am oto nee na moom professeur Sénégal yi dañoo war a torox est-ce que gis ngeen imagination ay surtout juutal faal non ay nit nuisible dans ci société il faut ngeen di réfléchir tuuti sama gars yi utiliser leen seeni neurones amul njëriñ da ngeen ko war a utiliser dama ne déglu leen waxu ay surtout juutal Ça a saaga ne pour professeur parce que moom dafa jàpp ne tel professeur le Sénégal nee na mi ngi xeeb de nee na ay cent cinquante mille ngay am ay deux cent mille donc benn professeur warul tekki Sénégal donc professeur daal tekkiwul dara moom mooy jàngal sa doom boo jaxlee mooy jàng moo la jàngal yow ba nga doon li nga doon ay professeur moo la jàng ba nga doon nga ne yow ñooñu dañoo torox ba ngay lijjanti ngay ne ñoom seeni oto kon professeur Sénégal dafa war a torox cent mille cent cinquante mille warul am sax oto nga ne dàmboj nañ lijjanti fu mu amee otoom est-ce que du auto siras katu dal bobu gaay bu dambo di jang muy siras dal lañu wara lijeenti bu de dekk bu normal la bu kanada tay Canada la dambo otom c'est normal bu gene na je suis professeur d'anglais canadien ben non respect ñu ne Farba lan nga mu ne kat la dama don siras dal pousse bu dem ba mujjé di soti ay safara xor yande kor débat de det toabi na ah, lu lolu Hein? Non, non, je versais des, des, des, des trucs là sur les lutteurs là. Ah non, mais je n'ai pas compris. C'est quel, quelle, sorte de travail là hein? C'est quelle sorte de travail C'est Kasso Balagem. C'est Kasso Balagem. Dambou, Bouboba, professeur Boudon. Ni muy jangal sen dom dañuy ñew di gaar ay diko may ay auto parce que dafa def xam xam ci sen dom ma la kële taxawul lañu ñu war a lijjanti moom moom Farba Ngom fan la jëlee ay otoom te musul jàng musul liggéey fan la ko jëlee enrichissement illicite vol aggravé détournement de deniers publics kooku ci kaso mais dàmboj am na profession dàmboj jàng na am na xam-xam am nay diplôme comme man ci république d'ambot la privilégié des gens comme des c'est des bandits c'est des détourneurs de deniers publics mais les complices de ne Fall bi nga préférer dafa day toroxal pour a ni ci ay un milliard hein, cash bu leen fàtte ni Farba Ngom lañ sàcc ci këram un milliard cash un milliard cash ba léegi newul ci kaso bi dëkk bu baax yàlla baaxal leen amul dëkk bu nit di fa sàcc ci nit un milliard te jàppuñu la nga denc say kër ay paketu liaas ba benn garde corps di sàcc un milliard yu manqué weccam léegi ku mel ni ab journaliste Aïssatou Dioutal Fall bëgg a ñëw ci média bi bëgg a baaxal sàcc boobu bëgg toroxal jàngkat bi nga xam daa jàng bay jàngal suñuy doom waaye tàccu leen Dame Mbodj waaye il est très moo tax di wax ni Dame xeex bu ñuy xeex pour indi fi république buy valoriser moom dàmbóoj la ñun xeex bi ñuy xeex république xeex bi pour valoriser république des professeurs des enseignants borom bopp yi borom xam-xam yi la ñu privilégié jël sàcckat yi triant yi dugal leen ci kaso yi wala ñu suul leen ci suuf si ndam di ko am incha ndam lu rëy di ko am patience la patience paye daam Lo am mérité nga ko daam yow waxuma la benn oto da nga mérité am parking auto. parce que daam dañu am ay bopp yu lay jox dara newu ci nga dugal ci dugal ci dugal ci dugal ci anglais def ci langue internationale boo xam ni koo ko jàngal bu demee dëkk bu ma dem mun a communiquer daam kenn amul sa fay daam yàlla rek moo la mun a fay daam diiñ nga honnête nga yàlla rek moo la mun a fay mais la nation mu amuñu sa fay mënuñu la fay ndax xam-xam ji ngay sol ci doomu aadama yi ndax xel yu vide yu ñu lay jox ak lan ca def ba dëkk bu ñu dem ñu mun fa communiquer ba mun fa wax seen soxla langue bi di leen sauver donc daam kenn amul sa fay yow gàcce ngaalaama yow yaa nawloowul Aïssatou Juutal Fall yow yaa nawloowul ki sàcc yi nga xam ne dañoo sàcc suufu Sénégal ñu mel ni ay Farba Ngom ñu sàcc un milliard seen kër kaas liquidité ñooñu yow yow ñooñu say sa suufu tank sax mo leen gën bokk ak ñom sax on comme mom day mëna fenn on moom Aïssatou Fall ba ne day jéem valoriser ke <laughs> ñu won ko ni ñun dans notre république la république des valeurs la république de la conscience citoyenne la république de l'éveil des consciences dame tu es un roi tu es au summum de ton art yow Dame mu ne dans la république des valeurs dans la république de la réflexion humaine dans la approfondie dans la république de la science dama ne yow daam amoo morom amoo maas amoo dendandoo ku ci nekk ñaan nga yàlla am doom bu mel ni yow jàng am xam-xam di wax ñëpp di la déglu ngay wax wax ju am solo adduna yëpp respecté la boo duggoon ak Farba ba ñëw fii ku nekk tubaab bi laaj la luy sa métier yow boo ko waxoon tubaab bi da lay yóbbu hôtelu cinq étoiles bu ko Farba Ngom waxoon rek kaso la jëm kaso hôtelu zéro étoile lañ koy dugal bu ko Farba Ngom waxoon boo ñëwoon fii ba tubaab bi téye leen na daam nga ne woy génn say diplôme je si professeur euh, euh, <clears throat> d'anglais euh, au lycée et collège je suis un syndicaliste donc toi bi eh, respect dame, respect jël la pour 5 cinq étoiles Top, patrol jox la garde corps Je n'ai eh, j'ai jamais fait le banc hein. j'ai traîné ici j'ai été j'ai j'ai j'ai été j'ai j'ai été de chaussures après j'ai été j'ai été euh, j'ai été griot griot griot de quoi non j'ai été griot Griot, quoi cest c'est quoi griot Non, griot, j'ai senti les lois des gens comme ça qui traînent dans les rues. J'ai dit griot, ah, oh, oh. hein, non, griot. Oh. Ok, continue. Oui, oui, après j'ai fait, euh, j'ai fait Sario, j'ai travaillé dans les Sario, dans les aéroports. Après, j'ai été euh, euh, vraiment quelqu'un euh, char, charlatan, féticheur, là. Je, je, préparais des bains mystiques pour les, pour les rituels. Hein? Mais tu parles de quoi, là Je te demande ta profession, monsieur. Je demande juste ta profession. Oui, après, euh, après, après, Bob Dam, vous avez hôtel 5 étoiles, vous avez un hôtel avec garde corps. Auto bu toy cortège. Vous mi ngi nek fay di wax. Oui, oui, oui, féticheur. Après, après, moi, là, on m'a donné des, des, des, des, des, papiers là. Moi, je vendais les maisons. Après, moi, je suis vendeur de sable. jaakatu quand tu souffles là, vendeur de sable qu'est-ce que c'est vendre de sable Tu vends du sable quel sable sable de mer sable euh, non, je vendeur du sable. Les gens, ils me donnent les, les, papiers de maison, et moi, je vends les maisons, et moi, après, je prends ma, part vendeur de sable. te ce que ko dire. déjà du dugg ci dëkk bi boobu day qui amul profession musul jang, amul dara ci bi musul la mais ci bi la jëm kon Fall nga xam ni dañ ñoo bugg a gëmloo ni ki sàcc am la ñu war a privilégié ki jàng ba doy loolu mu am moom dafa war a torox xel yooyu weesu nañ ko respecté leen ki yor ki ñàkk manqué lañ ko respect loolu ñun weesu nañ jamono yooyu c'est la préhistoire ki yor nawloowul ku ku ku yorul non yooyu weesu nañ ko ki jàng ba ne am ay diplôme am warul am dara loolu moo tax waxi Aïssatou Juutal Faal bi professeur yëpp naqarul nañ ko ñëpp ñu ko seetaan naqarul nañ ko torop ba ci kanamu yàlla parce que man am naa petit professeur kat yor na kat kat mais dafa ma woo ma mais Mollah Mollah c'est triste man ko ah, lan la mu ne ma grand loo wax yëpp dëgg la des fois may métti boo toogee nii di attaquer nit nii quoi dama naa no grand bi dafa war a bàyyi affaire yi mu mais mais grand chaque jour da am dëgg ci man mun ne ma Aysatu juutal faal nga ko doon Aysatu juutal faal Aysatu doxat faal nga ko doon wooyee bu ngay wax loolu dafa doon métti mais gis naa ni gel bi dara newul ci bopp bi lu dul ay doxatan ah. ma reetaan ma ne ko ah mu ne ma grand gel dara newul ci bopp bi lu dul doxat mais grand déglu nga interview gel bi ma a ko ah mu ne ma génnaat na moom moo ma ko yónnee tey soo ma ne ma jël visionné ko xool ma ne ko wuy ma woowaat ko dama ne ko may ma mu may ma ma visionné ko ma gis ay prolétariat bourgeoisie kële dafa sàcc am du naw la kii kii warul am professeur la warul am oto kii warul am dara ay kii mi euh, euh, deux cent mille lay fayeeku professeur la kële ay milliards la yor ma ne kii est-ce que mus na jàng sama xel ma ne est-ce que kii Aïssatou Diouf Fall mës na dugg école est-ce que mës na toog ci banc kii est-ce que c'est pas benn malpondu quoi après j'ai appelé mon petit frère wax ko mooy seetaan naa ko mais c'est c'est décevant c'est honteux mais lan moo tax nga gis sa bopp mu ne ma mais grand kii ñun daf ñu manquer respect quoi c'est-à-dire man professeur histoire et géographie dàq jàng Aïssatou Diouf Fall jàng ba ne ar jaar université def concours yu tàng nga xam ni pour ñu jël ci ay nit sax tuuti la ma génnee ci école yu kawe ci Sénégal école administration génnee ci ay ENA def ay concours dagg ba doon professeur plein d'histoire et de géographie mais ay Aïssatou Dioutal Fall ne man waruma am dara jàpp ni man sàcckat bi moo ma gën Mum, ki nga xamni moy farbu Farba Ngom sàcckat bi jaaykatu suuf si ku musul jang moma gën ba koku sax waruma nawlo ma non c'est normal petit frère ndaw soosu bo gisé may koy wax lolu dama ko xam tokkatu yambala won lycée way la jangé di fa tux yàmba da tux yamba soxna yamba bañ japp ko fa gel concours tux yamba fen taxawaalu kese la amul bopp bi dara new ci ma ko bu ko jàppee wa man li xamna ko man duma ñew ñëw indexé nit ni ne di wax ci wut dara newul sen bop yi dara motax muy wax nonu di khas professeur yi mu man non lol do ci gissam bop quoi comme si dambu professeur di professeur d'anglais warul am auto mu ne ko yaangi dawal 4x4 ma ko ah mais gis nga et pourtant sama rakk bi mom 4x4 la yor essence te mu ko leneen musul na wul ci dara jàng jàng di jàngale booy bi musul taxaw c'est un professeur plein d'histoire et de géographie bopp bi fees dell ñëpp xam ko ràññee muy jàngale nekk di jàngale lycée cees élèves yi respecté ko booy quatre-vingt-dix pour cent ci ku musa yor da dagg bac bi dem liggéey liggéey liggéey ba jël kon professeur waru am kër Sénégal professeur waru am oto professeur dafa war a torox donc politicien bi moom moo war a yor kër yor oto yor lépp non mais incroyable ma ne ko jeune frère combat bi lu ci des bëreetul attention nos ceintures booloo xeex jëlee fi ñii des gens qui réfléchissent comme Aïssatou Diop Fall kii yoo xam duñ duñ utiliser sax benn ci seen xel mais ñooñu ñëpp dañ leen fi war a jëlee système bi mo nek en décadence système bi mo commencé exploser système bee yàqu panique générale ñi di daw Yérim que jóge fee fen daw tout tout comme que tire mais dañu tire c'est la fin chaque chose a une fin de panique générale avion est daanu nous. avion bay daanu Yérim Seck ngi para yuuxu fii fen du waaye yow kii Sonko bu mu bindee lettre bu mu koy bind Macky sàll liir naa lettre bi mi ngi nii dama ko xool ni ngi keenaan la non dambo dama ko jaarale ci bunt bi non eh, du la mës a génneel vidéo du la mës a génneel jusqu'à l'extinction du soleil Farba Ngom du mës a benn tarfatal virgule zéro virgule un cent euh, tiers vidéo fen fenn tooy xat Aïssatou Diouda Fall bu ko valoriser bu ko légaliser bëgg ne Farba Ngom lu mu wax dëgg la <laughs> ñi ñooy doome xaram non Sénégal ay fere doome ñii seen ndey xawma nuñ def fi jur indi leen ci monde bi quoi caatata ñii seen yaay yi war nañ saa yu ñuy yeewoo duñu baalu àq xawma ban progéniture la xawma nuñ def ba wut jëkkër ba am ay doom yu mel ni Aïssatou Diouda Fall wala Farba Ngom nan la ay ndey ak baay mun a booloo di sëy ba indi ay doom yu mel ni ay spécimen yu mel ni ay surtout juutal faal wala benn Farba mun a ay Farba lu mu wax dëgg la ko Farba Ngom di fen politicien fenkat duul kat bu musul jàng bu amul dara ci bopp bi doome xaraame sàcc milliard du milliard ñu sàcc un milliard non ay vrai doome xaraam de la pire escoutu mbaasaan non papay ay Diop Fall ak yaayam amal nañ ñu àq ba ci kanamu yàlla te dinañu dinañu atte parce que nu ñu def ba indi doomi xaram boobu sur ay ñoom mel ñu mel ni ay yërim sexe ñu mel ni ay madambal jaañ ku la gën a doome xaraame nga ne kii la avion baa ngi daanu ñu ngay jafandu fu ne jeex na jeex na seen nguur jeex na ne Abdou loola moo leen feebarloo ngeen di caddi caddi ndànk da ngeen di dee ba seddu guy dingeen ngeen fiy jóge par la force doole mbaam dinañ leen éradiquer gis nga nu nu nu nu nu nu Hitler euh, euh, defoon juif yi extermination bi dinañ leen ko def dinañ leen exterminer ba Ngom Yérim Seck Madiambal Diagne Aïssatou Dioudal Fall yéen ñëpp la ñuy exterminer xeet gu bon ngeen xeet xeet gu bona bona bona bona bon ngeen dañ leen di exterminer parce que mënu leen ñu leen fi bàyyi ngeen di souiller la terre de Dieu mënuñu leen fi bàyyi ngeen di souiller la terre mère des hommes intègres mënuñu ko parce que yéen doo leen mus a jur ku bon gi ngeen doo musa bax a baax ku la dàq fen nga ne ma la fen lekk riba doul diwo kese liñu dundé doul duul diw daw kese liñu dundé yeenum yéen ñewon fi ñëwoon na yow Ousmane Sonko bind la lettre Macky moom sax jot na ci lettre bi liir na ko <laughs> ana lettre bi may wax Farba Ngom naa dugal naa ne dama leen doon dugal ci porte bu ndaw bi quoi pour mun leen <laughs> ndeysaan xool ay sutu juuta fa kontaan di rek <laughs> waaye du ko def ñaaw de comme caga caga caga caga bu perte comme comme mu ñuy juutal farba yow ma ne cot nday réew mi non Sénégal sama genre gi la ñu am mu jiital mu jiital leen way kon ma defaral réew ci une semaine <laughs> tey ci kàlla ndax parce que alxuraan non Sénégal lañ ma doon jox ma jiite ko une semaine laa leen may ma def réew mi cot man leen bu ma ko defarul une semaine xoolal jël leen seen réew ma ñàkk sama ndey ba ma defaraat sama mbaxana ba dugg billahi maay seyal ñu bari booy maay <laughs> maay seyal ñu bari billahi wallahi dinaa seyal ñu bari am na ñoo xam ne duma sax bàyyi seen papa seen papa yi seen yaay sax dama leen di yóbbu ku ci mel ni papa ay satu juutal faal du ma ko bàyyi du ma bàyyi yaayam parce que may xam ne lii kii deret la kii deret dafa fort damay yóbbu yaay ji dama koy seeral vum ay sutu juutal fa laa njëkk éradique ñu ne génnoon na fii ñëwatul fekk suul naa ko bu yàgg yaay ji jël parce que bàyyi yaay ji mën na jur ko mel noonu li ci ma seeyal yaay ji ndànk récupération yóbbu tëmbal bu yaay ji bàyyi ji dee dund ma seeyal ko ndànk tëmbal éradiqué naa famille boobu bàyyi dem na yaay dem na kii dem na voilà bu jëkkër ji jegee sax ma seyal ko une semaine ma defar réew mi barke alxuraan billaahi mun naa defar Sénégal ci une semaine ma dem topp ji yërim sexe baaja deen yaaja deen ma yóbbu ko bu juree doom ma yóbbu doom ya kenn dama ci bàyyi kenn kenn seyal seyal ko seyal toute sa famille toute sa famille foofu yëpp arbre généalogique bi yëpp laay yóbbu mu set wecc une semaine dëkk bi ne salaw gars yi du dox jàmm ak salaam yu si des sax du lu rëy ay taalal leen làmp defaral leen tali man nit yi laay liggéey nit yi si boppam laay liggéey jël déchets toxiques yëpp déchets toxiques yëpp sànni suul calmement coow du jibbal du tàkk ñu yeewu ana yërim ana ah gisuma bi amul kii bi ah gisuma il paraît que yaay yërim dem na papa yërim dem na amoon na ñaari doom ñaari doom yëpp def teg ma defaral leen réew mi ba mu ne cocc ma ñàkk sama ndey billahi mun naa leen defaral Sénégal ci une semaine barke alquran yor naa projet yi yor naa projet de société bu adéquate bu adéquat du moins ci seen doxalin yor naa projet de société boo xam dama ko liggéey liggéey boo xam ni kenn me proposer un projet de société Sénégal pour bu Je vais ndax bi Il yor a un projet de société société xam adéquat bu adéquat réalité socioculturelle culturelle bu Sénégal boo xam ni bindee sax Sénégal ci yeneen dëkk laa dem ju xool ba xool xool def comparaison def def def def dem ba dem Corée du Sud xool dugg Japon xool dugg Singapour xool dem Europe ba yëpp dajal ko ba mu deg sëkk dugg Amérique ba dajal ko ba mu daj sëkk xool bu Sénégal rek bindal leen projet de société boo xam ne moo ko waxoon moom kenn du ma votel bu ma ko ubbi sama projet de société boo ko tegoon kenn duma ma votel ñaari voix laay am ñaari voix mais bés bu mu bu jàppale ne daal yor naa projet société boo xam ni may defar Sénégal ci une semaine man man moo Mollah Morgun mun naa leen defaral Sénégal ci une semaine bu mat sëkk cocc dëkk bu set wecc dëkk bu ne salaw dëkk bu bu correct dëkk bu yaru dëkk bu coow dul jib bal dul tàkk suuf dul yëngu cocc cocc donc loolu lu leer naññ la parce que manque de respect weesuwul ñii saa yu ñu génnee fen rek fen rek Yérim Seck si day fen jaar gauche Aïssatou Juutal Fall fen jaar droite Madiambal Diagne fen jaar ci kaw kee ñëw fen jaar ci suuf ah mais jox cër nañ ñu jox cër loolu moo jar a wax te ngeen bañ a ma koy tëjee foofu nag ay tiire ci seeni nit ci seeni nit bugguma ci woon sax wax parce que man souvent boo leen ma seete dama am benn ligne de conduite ñu may doxee samay principe la man bu ma ànd nit pour man dama la war a jàppale pour man dama la war a soutenir pour mon dama la walal may doole man buguma and ak nit di la affaiblir di la wàññi man man man idéologie boobu xawmako nit tamit buma ko waré wax té am possibilité ko wax ko ci ta si souf la koy wax tank ñi ngi and man gëm bu ngeen fi songé tarak yargasi. commencé di coup tam ay affaire yu dëmm ak ay dafa pompe génn na ne len attention kooku musul pompe bo xaw ko sax kooku musul pompe xol len vidéo bi jegewul sax pompe mais gis nga wax ju bari émotion mo sacrifier yarga si ba ñu muju ko djign lu ne tay heureusement génn na chaque jour dama len wax de len té seni émotion chaque jour ma len di wax wàññi len seni émotion dank la raison avant l'émotion ba ma suruxalee photo di nekk ci sama recherche am ci affaire yu may nekk tut tut tut mais man comprendre naa leen parce que man mun naa leen mainten man jaaxalu leen ma mais biir boobu yëpp mais tey mun nañ ne benn euh, Cheikh Baara Ndiaye moo ci newoon ku dal koo xam bu ñëwee ci dañ leen moolaa de ab moolaam la xam nga moolaa rek bàyyi leen ko ca la mu ne ba ñu demee ci Sonko it moom même chose la moo laa moo laa la bàyyi leen ko ci lu mu ne parce que nit bu xam nit war na mun a xam ni kii jógul pour yàq am na lu muy wëri am na lu muy def am na ci lu mu ne ñiy ñëwati ci waa ji nga xam ni lu mu tuddati bërkaati démb rek bu mu waxee ni moom bu ma sañoon man damay dem jalo may sa mangage ngeen attaqué ko mu ñëwaat ne leen lu tax ngeen koy attaque waxul au nom du parti def ne moom ci gis-gisam xeyna sax day stratégie wala day technique songati soldat ku ngeen soldat parce que dama dama yaakaar émotion bu ci utiliser raison def doucement patriote day patriote day day utiliser ay patriote day dal loolu ay qualité intrinsèque la patriotisme patriote day réfléchir nit yu ànd ak yéen xeex ba juñ jonn yalla tay. ci en une seconde même boudé erreur la sax yeen ngeen bëgg ñu xara ñu ray ko xara ñu sul ko xanaa kenn ci yeen du def erreur Boudé erreur la sax la la wax de bu dee du stratégie xanaa kenn ci yeen du def erreur day leen dal chaque jour erreur yi mo leen di dal ak ñi ñi parti ba li ñëw exploité ko ngeen di tiire ci seeni nit tiire ci seeni i nit am ci feerte di ree ngeen jàpp benn seen waay bu far ci yéen xawma lan li commencé ko attaqué war war war war war war ngeen gis ko mu ànd ak yéen de leen dal démb ngeen bugg ko jël bëgg fee songati seen nit boo xam ni il s'est donné corps am âme il s'est sacrifié lu mu am yëpp def na ko ci combat bi tëdd na ci kaso yi feebar na lu ne daj na ko lépp ci projet bi muy Cheikh Bara Ndiaye ngeen dégg dara war a dal mais defu leen ko songati Cheikh Bara Ndiaye amal ko vingt quatre heures quarante huit heures de Cheikh Bara Ndiaye quarante huit heures vingt quatre heures de Cheikh Bara Ndiaye Des fois, je me demande, est-ce que nous sommes des patriotes Est-ce que nous sommes pas stèves, mais nous sommes des patriotes Parce que pour moi, si nous sommes des patriotes, nous sommes pas le droit de faire ceci. Nous commençons à faire des choses. Mais ces choses, elles ne sont pas d'accord. Ces choses, elles ont une raison pour les assister. mais dëggam nee na ñetti dëgg mu am dafa am sa dëgg sama dëgg ak dëgg yàlla mais Cheikh Bara bu toogee fenn dégg fa lii ñu wax ko mu ñëw rapporter liñ mu dégg nga bu ko cay jugé mais def na leen loolu laa dégg mais bu mu demee loolu da ko dégg da ko gis après lu mu gis la wax lu mu dégg luñ ko wax rek la raconté mais Cheikh Bara Ndiaye musu jël xeex bi ne xeex bi sëriñ tal moo ko def musul wax loolu mais loolu lepp bu amé sax mais dal il faut pas éliminer ce ce élément Cheikh Bara Ndiaye lu mu def ci xex bi même wax jooju bu doon sax erreur le sax waruta tax gaay yi di ko attaqué parce que xex dafa impacté wul dara ci combat bi amul impact wax bobu amul ben impact ci combat bi gaay yaangi xex jomaa yaa ngi fimu mu Sonko ngi fimu mu ga ya ngi xex amul ben impact bu mu def donc bu amul ben impact ci combat bi lolu soxlu wul ciow lolu yep pour lan pour lan ko nafata lan la ciow lolu changer lulul dul suñu liggey lulul indi ciow ci suñu liggey lulul tardel suñu liggey indi amul leneen tay mi ngi ni mo jitu ci xex bi ay otom la louer taal nañ fi otoom song nañ fi këram gaañ nañ fi njabootam tëj nañ ko ci kaso bi yàgg na fa ànd na grève de la faim bay waaj a dee yóbbu nañ ko ci hôpitaux yi lu ne daj na ko mais kooku <laughs> du ñëw chronique ne lu ne gën a rafete lu nañ ko fi mais kooku bu waxee lii même bu ko assister sax mais dafa y a dara amu fi quoi lu fi jaram lu fi ñor bañ koy màcc coow ku génn euh, da dal man xawma des fois lan moo leen di cuq yenn nit yi du ñëpp nag yenn yi xawma lu leen di cuq xawma dañuy bëgg a siw xawma dañuy bëgg mais mais non am na gars yi yàkkamti live pour am quarante vues quoi ci ah, Sénégal ñii bu ñuy xeexi principe ñee promo la ñu wër ñee siw ñee guerrier doo comprendre daal xeex bi daal mi noonu xeex bi bëri na jaxasoo na ah, xeex bi ak jaxasoo lu nekk nga ci ku la gën a bëgg détail ku la bëgg a siw da ngay gis ku tekkiwul dara taal portable am jël Cheikh Bara Ndiaye def ci kaw kenn xamu ko xamuñu baayam tojul fenn yaayam tojul fenn da combat bi du ci warga benn doomu warga sax doonu ko ci nan kii ci kaw kii di gis Cheikh Bara Ndiaye lu mu wax tegu ko fenn noo bekk dëkk yow sa baay sa baay sax toju fi lu Cheikh Bara Ndiaye def sa baay xaaj xaajaam defu ko ci réew lu Cheikh Bara Ndiaye def sa ndey plus sa baay multiplié par cinquante xaaj defuñu ko fi yow tekki woo sarab maamam nga taal sa live di wut ñaari gem ak ñaari gërie la wax nga dëgg ci à raison nga nga ngay naan da ngay disrespect ay ay monument de la résistance ay monument de ce combat la xamoo nday sa ketu ngemb ak sa odoru silib yabaate ngeen ndayam yéen ku ci yor portable deux mille cinq cent wala trois mille yàkkamti jël benn combattant boo xam ni moo dàq xeex sa baay dàq xeex sa yaay bu muy xeex sa baay ci suuf rondal gi la dugg bu muy xeex sa baay daw na bàyyi sa yaay ci mbedd ma sa yaay daw làqatu ci suufu ngunu gi ci ngunu ginaar ga ngay daw ndayam bu mënuñu la jur ñu tekk woo sat muy xeex di xeex ba sa baay ñi may génn suufu la rondal di xeex ba sa nday ñi may génn ci ci suufu euh, euh, lu mu tuddati ci ngunu ginaar ga nga bu ko yab ndayam di commencé yéegal ci kaw bonte def photo naa kii kii kii ñu yab lu ndaayam laa la wax kii bu muy xeex bu sa baay génnee di dox am fitu dox kii kii moo xeex kii sa baay bu amee fitu génn ci suuf rondal ga xeex sa nday bu amee fitu génn ci ci ngunu ga kii moo ko xeex bay dox soxla am kii moo ko xeex sa baay tekkiwul dara ci xeex bi sa nday tekkiwul dara ci tekkiwoo dara ci xeex bi yabaate ngeen trop réew bëgg ñaari promo ñaari vue wala ñaari laaj ngeen commencé monter ay photo ah kii kii kii kii kii moo mun sa baay mun sa nday bu duggoon seen kër na kenn du añ kenn du añ bu ko sa bay gisé day ram di ñew diko di ñaari loxo bu ko sa nday gisé day ray ram ñew ñoo nan ko bu du won sa bay yow laay jox nga takk ma raw ngeen yabaté ngeen yeen ko ci yor ben portable ñaari vie commencé dem tiktok tiktok la ñuy taxawaalu xom ma lu fa nek nak tiktok rek la nek facebook bi facebook xaw ma lan mais wuñ ko ñepp ñi ngi bëgg vie ñepp tiktok bëgg vie xaw ma lan noo nekk TikTok waaye daal koo ci gis ma nga TikTok waaw waaw waaw waaw waaw xool leen kii ci kaw gis ngeen kii may waxal nii non kii kii non kii dañ koo jënd kii dañ koo jaay non kii dañ koo weccee kii dañ koo <laughs> ay gars yu xiif ñoom lépp jënd la lépp jaay lépp weccee ay vrai commerçant liveur commerçant ña nga cooy TikTok ba yàkkamtee monté kii dañ koo jënd kii dañ koo jaay kii dañ koo weccee kii dañ koo jënd ñoom lépp commerce la kii dañ koo jënd de moytu leen kii kii dañ koo jaay kii dañ koo weccee de kii dañ koy weccee loolu mooy seen vocabulaire jënd jaay weccee jënd jaay weccee ñoom nit ñi dañ leen di jënd di leen jaay ñu des fois di leen ko jënd wala ñoom ñu jaay ko wala ñu weccee ko wala ñu kii waxaale ko non système éducatif bi am na problème système éducatif bii war nañ cee trouver solution pour problème bu gën a ngand Sénégal système éducatif bi la ca ñàngale mi ñàngale mi sooxe na ñàngale arxuraan ma sooxe na ñàng français ba sooxe na ñàng nasaraan ba sooxe na réew mi benn ñàng mokkul benn ñàng dara nawul ci bopp yi nit yi dofe nañ bëgg nañ promo bëgg nañ gis leen ma mun nañoo fen mun nañoo fake news duñu wax dëgg amul amul amul suite ci lu ñuy wax bu ñu waxee tey fen suba ñu fàtte ko ginaa suba ñu ñëwaat non mais <laughs> réew mii dinañ ko defar réew mi réew mi dinañ ko defar dina metti nag ay bakkan dina waaye réew mi dinañ ko defar dina metti torop torop torop torop mais réew mi dinañ ko defar réew mi jaxasoo na réew mi euh, dafa ëpp sax ëpp na doy na waar kéemtaana yéeme na di wax respect à Yarga di wax maximum de love de thanks and praise à ki nga xamne moy Cheikh Bara ndjay di la tojeul di la wax ni vrai soldat nga do do do moroomu ben bayu taxawaalukat doo moroomu benn ndeyu taxawaalukat seen ndey yéeg seen baay yëpp nga wut yow yaa ngi jël li nga am di ko def ci ay oto di ko def ci campagne bi yaa ngi ci oto yi yaa ngi joxe lekk yaa ngi joxe naan di ànd ak militant yi di xeex dugg nga ci kaso ja nga ci lu ne kon Cheikh Bara amoo morom amoo maas amoo dennandoo doo moroomu taxawaalukat laaj leen ku ci nekk rek buy wax ne ko an sa baay laaj ko ana yaayam doo ko gis seen baay yi doo ko gis seen yaay doo ko gis seen séer yi daw di làqatoo ko nëbbutu donc nay leer di wax maximum de respect ñun patriote yi laa sénégalais waxuma ay Pastef ak patriote sénégalais ñëpp la jox cër ay kilifa ay pa ay ñu jàng ay ay professeur universitaire ay aw ñëpp gars yi yow yëpp jox nañ la cër te tu fais trembler la république Macky Sall ñimewu la Antoine Diome ñimewu la gars yi ragal nañ la mun nga wax am nga xam-xam mun nga chroniquer am nga vision am nga idéologie am nga principe lepp lu ñuy mayé ci patriotisme ci qualité am nga ko doo moroomu benn bojo bojo wala taxawaalu kat seen yi ñàkk a fayda yooyu soxlawul sax nga leen tontu parce que nawlo woo sax bokk leen niveau dof yi di wër di wëndaalu sa yu kenn joggé ñu dem songu wara dem songi ci Macky Sall wara dem songi ci Amadou Ba wara a dem songi ji leneen ñu jël seen lepp bu ko def ci ci attaqué seen biir nit di attaquante seen biir nit di jaay la bravoure te yëfu dof la du yu fu dof dof kese la lépp lu impacté wul ci li ñuy xeex mun nit war na ko mën a bàyyi mu jàll ay détail la ay détail ñun ñëpp on est xam nañ xeex bi ñun sénégalais ñoo ko yëg du benn sëriñ xam nañ ko benn sëriñ def ko mais boo ñëwee toog kenn la kee wax fee kee wax fee kaw nga gis loolu ñu wax loolu nga gis mais yow sa bopp xam nga ni xeex bii yow yaa ko xeex yow Cheikh Bara Ndiaye yow journaliste Pape Alé Niang yow yaa ko xeex man moo Mollah Morgun maa ko xeex Ousmane Sonko moo ko xeex yow mii yaa ko xeex kee nekk ci kaso moo ko xeex nit dof moo ko xeex Abdou Karim Gueye moo ko xeex si Thiam moo ko xeex ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo ko xeex la liste est très longue fi amul nous ñun xam nañ on n'attend pas jusqu'à midi pour croire au soleil le di bàyyi ba midi pour gëm ni donc jour, débat les urgences sont ailleurs Concentrés vous sur l'essentiel les détail ak les songu seeni nit bay yakamte diversion kula muna wax focus mo la gëna ñak focus senegal kula wax focus sax focusul parce que bu focusoon sax dula dula gis sax bay gis ni focuso déggu leen de dama ne senegal kula nan focus mo la gëna ñak focus dafa mandé carrière ba yew yew nak ne la sangal satan kula ñu wax focus focusul nit bu focusé lu mu focus soxlawu la wax focus xamul luy waaye nit bu nekk yor sa livre di lire yor sa bouquin di lire maa ngi lire nii nan laa xamee ku nekk fa ba naan ko focus parce que damaa xool ba gis ni kay focusul ma ne ko mais bu ma nekkee téye sama lii di lire yor sama bouquin di lire nekk ni concentré wu nit ñi di lire mais xaw ma lu donc ku naan la focus focusut ñay wax focus focusuñu ku focus du wax focus dafa focus ba tal na lenen ko la dàq wax focus senegal focusul lo dàq fofi nek ci lu len neex man de sen carrière bu ñëwee na la bu ñu yewo rek tit na focus focus focus dañ ngi doga yewu de <laughs> yow si rek nak bu ñu focus boobu ya ngi nalaw da ngay doga yewu motax nga nan ni di focus kuy focus du wax ci détail kuy focus. day protéger projet bi kuy focus ci lu yak projet bi lay wax kuy focus ci ay ñom Aïssatou de fall yi lay wax ci ñom Yérim yi lay wax ci ñom Madambal yi lay wax et cetera ci Macky Sall mi lay wax ci Amadou Ba di mi di corrompu corruption lay wax donc les urgences sont ailleurs ci xel waaye Sonko génnagul de génnagul de Sonko génnagul yooyu moom dañoo man dama bàyyi sax débat yooyu débat Sonko tey ci guddi mun na génn suba mun na génn sa waay gis nga affaire yi xam nga lan la ah? am na ko ko wax léegi nee na amnistie bi nga defee après huit jours la ñu doo ko waat donc man xam lan laa gëm ak mbir danga koy xeex wala nga ñaan ko xeex nañ Macky Sall téye na Sonko léegi day day dépendre ci Macky Sall ci ay humeur am donc man mënuma xaar humeuru Macky Sall Macky Sall réew na dof na arrogant na imbécile na xaja na man mënuma yow di topp ay bëgg-bëgg Macky Sall Macky Sall bu dee moom ngeen topp di xaar di ngeen dina leen ko loloo de chaque jour boo leen yeewoo ne Sonko génn wala génn doo leen lijjanti seen bopp soit ngeen xeex ko wala ngeen toog loo leen am jël mais bugg yeewu saa yàlla waaye Sonko génn il est sorti non il n'est pas sorti yow bàyyi leen fen yéen kenn mënul topp ci ay ay bëgg-bëgg Macky Sall fu ne nii Macky Sall mooy mooy bàyyi Sonko du xeex du dara moo koy bàyyi. donc man nag mënu ma yeewu nag di lijjanti ay émotion wu Macky Sall ay ay yeewute Macky Sall bu yeewoo lu muy sentir kafe la naan am na suukar amul amul meew mere na Marème fay yuuxu na fii dama ne. dem leen toog ba gis sonk ne Sonko génn te ngeen may ñu jàmm sonk Sonko sorti n'est pas sorti Macky sàll moo koy génne kenn du ko génne te kenn munul topp ay émotion wu Macky sàll man awma jotam réew na réewande boo xam ni mun na ko ne mun na ne quatre heures dem leen génne ko cinq heures ne ah non non ko ci biir parce que moom moo moo ko yor moo ko tëj moo ko téye donc man nag newuma ci émotion wu Macky Sall topp ma Macky sàll dama ngeen dimbale ma ngir yàlla bañ ma boole ci yooyu comme bu leen amee jot na yéen toog leen ngeen xaar Macky Sall parce que mun na ko ne nañ ko génne lundi ne ah, delloo leen ko léegi non non non non dama jum oh, na yow sa allo sa euh, oh ba tey café neex na euh, maram mii naan ma sax naa yërëm Sonko mais oui ma euh, wo wo mais gëna leen ko ah, midi 45 toogaat maram fay def ko fi dara ci diggante boobu mu mer woote allo allo midi 45 midi 40 moo jot ah non non bàyyi leen ko ci biir bàyyi leen ko ci biir. lan non non dama mer ma maanaam léegi la mooy saaga ma ne doon wax ak man de ma jaay rewande non bàyyi leen ko ci biir bu leen ko génneeti parce na am ma metti parce que fu mu ne ni ma fi génne soo ko ma lu moo diriger moo yor Sonko moo koy ubbi man nag du ma yeewu di lijjanti ay émotion Macky Sall café gu mu naan wala ceeb bu mu lekk bu am kaadi boo xam ne moom mooy génn di bàyyi bu génnee baax na soo yu ko génnee jàpp bu kenn xaar tara toog leen buñ ne Macky Sall génn ngeen ne ah sant yàlla te bàyyi di ñu fowee Macky Sall génn no soo génn noo génn noo kii noo kii doo leen ñu may jàmm réew mi dañ ko bokk seeni nawle lañ réew mi am na ñoo xam ne dañoo am droit am ndàmpaay ndàmpaay bi mooy defuñu kenn lenn te lépp ñoom lañ koy def nit yooyu dañ ko war a bokkal ci programme Diomaye fay ay nit yoo xam ne dañuy am ndàmpaay nan lañu amee ndàmpaay mooy sénégalais yi ñoo leen di teg ay coono yoo xam ni te defuñu yëguñu tinuñu donc ñoom dañoo am ndàmpaay psychologique lay tudd ndàmpaay psychologique ndàmpaay psychologique mooy ay fenkat yu leen di traumatiser yeewu tey lay génn suba ginnaaw suba ci guddi loo génn non non bu muy génn ci buntu bi lañ ko arrêté dugalaat ko loolu traumatisme yooyu psychologique yooyu noonu dafa war a am ndàmpaay dugal leen ko ci projet jomaay jomaay euh, kii lu mu tuddati coalition jomaay dugal leen projet boobu ci biir dama dañoo soxla ndàmpaay ñun sénégalais yi di nawloo yenn sénégalais yi ñu ñuy fen di ñu foowee di ñu di sos di wax du lu dëgg suba ngoon di ñu di ñu traumatiser psychologiquement ñun psychologiquement nekkatuñu psychologiquement on est perdu dama ne ñooñu dañoo ñun dañoo mérité nous té ñing koy réclamer ñu Nous ko ci projet de loi bu avons fay moy nit yi nga xamné ay dégâts collatéraux lañ dañuy tok fuñu tok sen Nous sénégalais yi leen mëna Nous di fat di manipuler di avons di lekkatuñu ba suur Nous ba mandi nelatuñ ba yando dañuy commencé na la so ben Nous avons ko soko mu daw sol mu ah non non dafa doon la non non ah laaj na mooru xul Nous genn nga nga xool choc traumatique yooyu loolu ay choc la choc post trauma soq choc trauma la c'est traumatique ay choc la dañuy soxla ndàmpaay ñun sénégalais ñun tamit ngeen dimbale ñu ci foos news yi ci fen yi ci sos yi ci wax ju dëgg yi ci nit yi ngeen di tiital ci nit yi ngeen di yee guddi ñuy nalaw ngeen fen ñu jóg yeewu ngeen fen ñu tëddaat ci ñi nga xam ne bu ñu lekkatuñ naanatuñu dama ne loolu yenn sénégalais yee ñu koy teg. te bu ko yalla fayul parce que dé rek la ko yalla di fayé jël ci sen tiaba jox ñu mais comme tollaguñ fofu dañ né dañoo réclamer jomay euh, fay dugal lolu ci projet de loi choc traumatique psychologique dañoo sonn ñun boo ñu xoolee xam ni lekkatuñ naanatuñ ay fenkat di wër guddeeg bëccëg di fen rek on est fatigué nous kenn mënatu am jamm Sénégal ndax sénégalais yi ku la dàq fen nga dama ki la. ku la dàq wax fake news nga ne ma kii la ku la na naxaate ngeen ma te faalewuñ loolu dañ la koy def seen yoon newu ci ragaluñ ci yàlla Sonko nag makee ko teg foofu makee koy ubbi xaaruñu dara bu ko makki génnee ñëpp xam ne génne na ko tant que gisu leen Sonko ci mbedd mi téye leen seen ay Sonko il paraît que génn na ngeen may ñu jàmm yéen it baalu ñu leen ko ba yawmal xiyaam ba bu ngeen di dee ba bu ñu leen di suul may leen ñu jàmm lillaahi a rasuuli Macky Sall moo tëj Sonko moo ko fa bàyyi bés bu génnee Macky ko génne bàyyi leen ba mu génn ba ngeen gis ko ba ñu fiite vidéo ko photo ko wala këram ngeen doog ñoo wax lillahi wa rasuli même bu génnee balaa yegg këram Macky Sall mun na ko delloo bu leen ko catu Sonko mënul génn ndax seen làmmiñ yi pap boobu ba léegi Sonko mënul génn ndax seen làmmiñ Macky Sall bu ko bëggee génn sax ah Sonko génn la non delluwaat ko delloo delloo ko delloo ko mel ni Macky Sall day foowee sénégalais day jël sax Sonko ne ko indi tax xaaral ma teg la ci buntu kaso bi rek Sénégal mu ne dugalaat dugal dugal dugal oh Sonko génn oh Sonko génn oh aya aya ouh non non génnul eh ba la nga def oh ah. joo tët tët football ku mënul baaxut. da koy jox ba bal bi ci bunt bi estar bi yëpp jóg foog ni bii la mu kajj ko fële muy football ku munul dara non tension rek dee AVC da ngay commencé foog ni bii la jóg léegi mu kajj bal bi fële mu naaw wuy sama ndey oh muy oh, eh, bi attention attention oh pardon eh, raté oh attention raté yéen mënu leen ñu may ndey jàmm yéen yéen mënu leen ñu ndeyam jàmmal ko te yàlla tax yéen te xam ne nawle dafa foor te xam ne seeni nawle lañ ngeen may ñu ndey jàmm seen lam yi tax na Macky du bàyyi Sonko ñi ngi waajee ko téye ñi ngi teg moom saa yu ñu bu dem ngeen yàqu ko maa ngi waajee génn non bëgg tub buntu ba non waaye yaa doo leen noppi mel ni bëggatu leen ci dara nekk ci leneen concentré wu ci leneen nga xam ne bu ñu ko gisee ñëppay kontaan ah génn mais tant que yéen a ngi fi nekk nan da ngeen koy xaar ay kii ay génn ko mus a génn yéen xam ngeen mag yi réew na moo leen gën a réew gën leen xawadi gën leen gën leen a soxor tant yéen ngi toog naan da ngeen xaar di ngeen fande laaj leen waa APR waa PDS. ba ñu jógee di xaar Karim Wade ni mu leen def avion la ko duggal sànni ci biti ba léegi la fi gëj a dugg may leen ñu jàmm ngir yàlla waajee ko jàpp waajee ko tëj ñi ngi naxanteeg moom mënu leen tëj seen gémmiñ yi tuuti may leen ñu ñu xool nu ñu def ba mu génn ko ba pare ngeen doog a sibile Sonko bu yàggee ci kaso bi rek yéen la fu ñuy négocier di noppi pour mel ni ku fàtte pour waa ji génn ko rek ngeen commencé yuuxu mu delloo ko ca biir mun leen noppi tuuti tuuti tuuti tuuti may ñu une semaine est-ce que mun ngeen noppi une semaine may ñu est-ce que mun ngeen noppi dañ leen koy ñaan quoi est mun ngeen noppi une semaine bañ a wax ay Sonko génn nag génn une semaine ñu xool ñu xool ban résultat lay joxe wax ngeen a wax a wax a wax a wax ba léegi génn léegi noppi leen tuuti ñu xool noppi leen tuuti wax ngeen dem buntu këram fees fa dellu du benn yoon du ñaar yoon du ñett yoon di xaar génnul chaque jour ngeen yeewu ne Sonko génn génnul noppi leen tuuti ñu xool ba xam xëy na Macky ba wax ji lay da ngeen di wax muy bañ rek léegi noppi leen tuuti xool léegi nit ñëpp noppi silence total silence de cimetière lillahi wa rasuli noppi leen ñëpp bu fi kenn waxati Sonko Sonko génn naan génnul di laajte question ne ñëpp téye seen gémmiñ ñu tuuti rek. lillaahi war une semaine rek une semaine balaa ngeen commencé waat ñu xool ñu xool résultat yi incha allah donc loolu lañ leen ñaan daal dégg nga et que ñu focus concentré wu du woo sénégalais yi ci ñu taxaw ci ñu sécuriser vote yi ci ñu dem ci élection yi ñu dóor leen écart gu mat sëkk jël affaire yi ci premier tour dem suñu yoon jàmm na ñooy bu ko Macky génnewul tax nañ ko génne chaque jour Macky bu buggee def dara coow lu bari li yow mais Macky dafa soxor ku ñuy xeexal dafa bon ndànk démb mi ngi nii bàyyi na ay coalition Diomaye ñu dugg def seen enregistrement tey mu yeewu gis réew mi yëpp fees jàll kër yi fees jàll dëkk yi di yuuxu jomaay Diomaye Diomaye mu ne mu bu leen teg vidéo ba yéen xam ngeen ngeen ko si xel rank yi ñë la kay da ngeen di da ngeen affaire yi foog nga jaay maayen xal xeex xel la xeex xel la xel am na xeex xeex am na xel xel xeex la xeex am na xel xel arme la waa ji soxor na iñaan na bon na rànkiñe la démb bu gaa yi di enregistré bi te ko bëggoon teg tey mu yow gis àdduna bi yépp topp ci jomaay coalition jomaay beneen candidat doxul Sénégal ñëpp ñi ngi mel ay mbott moom kese réew mi di yëngu tey mu génn ne leen non bu leen teg vidéo bu leen teg démb luñ luñ euh, enregistrement ba wóor na ma tey ci guddi sax bëggoon naa génn Sonko ngeen ratat boo def du ko fa génne suba tam ni ngeen mu ne non bàyyi leen ko fii noppi leen tuuti noppi leen tuuti rek stratégie la tamit noppi noppi dafa garaaw

dama amoon sama copain boo xam ni dañ doon dañ doon rabandoo mais comme ñun dañu doon tëj ci gaale bi jàng rek lañ doon def waa ji dafa doon jël si pour ñuy répéter ñu dem répétition rab paa bi dama tere affaire rab léegi moom bu duggee ci biir gaale bi paa bi day xam ne daf may ñëw jël si mais day ñëw mel ni koy seetaan télé mais bu ñëwee rek paa du wax da ngay xool ci bët nii fixé ko bu ñëwee salaamaaleykum paa bi ne ko maaleykum salaam na nga nii fixé fixé fixé fixé fixé di ko wax ci bët di ko wax ci bët ba waa ji dellu mel ni ku ñëw nuyoo dellu bu ma toogee tuuti ma génn di doxantu boobu ay téléphone fii yëpp amul woon à génn di doxantu baa bi ma ne ma koy seet ma ne ko non mu ne ma <laughs> ah, sa waa ji ngay seet de mut sàmm ma ne ko ah ma ne ñuus naa ko ci bët ma ne ko ñuus ma ne ma si ñuus naa ko ci bët noq naa ko ci bët ma ne noq ci bët mu ne noq naa ko ci bët ñëwoon na fi léegi noq naa ko ci bët ba mu daw sama ba di ma wax loolu mu ne noq na sama copain boobu ci bët ba mu daw te dafa waroon ñëw mel nu kuy seetaan télé wokk ma pour ñu dem répétition ñu xool lu ñu génnee mais paa bi nee na da ko noq ci bët te noonu la dawee ñuus naa ko ci bët la ñuus naa ko ci bët kon dañuy ñuusaate ci bët dañuy ñuusaate ci xel nit dañ ko ñuus ci bët xol ko ci bët ni rek di wax ak mom jox ko kanam gi kanam du kasso ko ci tej mu gis ko dina dem ba xamni ah ki bañ na li bugul li nang te waxo donc Macky Sall mën nañ ko ñuus ci bët te léegi tu gemi ngi ñuus ko ci bët mais wax ji bu bëree day metti kon nak sama gars on reste focus sur l'essentiel sur ce combat du changement radical du système Nekji, andji, donben, ci ben Ben infiltrage bañ manipulation bañ dara nyup, main dans la main jàppalante lente, tenir tête ce régime maquis euh, manipulateur corrompu corruptible voilà ñu gañee ndam li incha allah yàlla dina ànd ak ñun te dinañ gañe dinañ am ndam incha allah sécurité sécuriser vote yi ci lool la ñuy dinañ ci développer tous les jours dugg dugg nañ ci campagne électorale léegi chaque jour dinañ def live campagne électorale sensibilisation nag de sensibilisation sensibilisation éveil de conscience delloo nit yi ci vigilance ci waajal seen bopp pare ci lépp lu war a am tamit dinañ leen ko wax bu soobee yàlla kon asalaamaaleykum wa a wa barakaatu di kontaan ci di leen big di la wax much love and thanks jaajëf peace and love and I'm out